لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني نوير جناني صفي أماني وزيد برائي بارك إمام شيخ إبراهيم Fall السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi طالبي taalibe yi rawatina seen mbokk yi taamu saa su ne seen jotaay ñu ci waxtane mam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baaxa baax tambale nuyu bi ak ziar bi Cheikh mohammedul muntaka mom Cheikh mohammedul bashir diko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lol te mën def wër mom mi tok jotay ak Serigne Touba Khadim Rasoul waye di ziar Serigne Cheikh jëm bu Fall ak diko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lol te mën def wër mom mi tok jotay ak mam Cheikh Ibrahima Fall di beral nuyu ak ziar suñu yaakaar tay ak ëlëk Serigne Cheikh Ngunda Fall. ndi ko ñaanal sunu borom kàttanal ko ba li mu yéene liggéey si kanamu njaboot gi sunu borom kàttanal ko mu defee ko kawe njortam ñu ànd ko ak moom. mbokk yi am lool kon dellu siwaat si jotaay bu màgg ba ànd ko ak sunu jëwriñ Serigne Mamou Ndaw Baye Fall di ko ziar tey ñaan sunu borom kàttanal ko bu wér-wér euh, xam ngeen ni saa su ne moom moom mu ngi si maamam maam Cheikh Ibrahima Fall képp yàlla nañ sax dàkk te sunu borom defal ko akug yàgg ak wér. waaye am mbégte lool kon dalal euh, kilifa gu mag di euh, Baye Cheikh Mbengue Baye Fall maa yomb mi nga xamante ni moom it dundam gépp maam Cheikh Ibrahima Fall la moom sëñ Cheikh Fall Baye góor di ko ziar bu baax a baax xam ngeen ni ñu dalal ko fa yéene fee waxtaane lu jëm si kon euh, nekkuk Serigne Touba si Gabon taxawaayu maam Cheikh Ibrahima Fall laataa Serigne Touba dem si tukki bi ba Serigne Touba nekkee si tukki bi ba ni Serigne Touba ñibbisee incha allah. di ko ziar bu baax si xam-xam bu rafet bi di si ziaraale bu baax nak seigne Jibril Mbeng ak mboolem wa Thiès ñu ngi leen di ziar bu baaxa baax seigne Mamour kon ñom gan gu mat gan ma sha allah na fas yéene waxtaanee taarix salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah waaw di la masaw nag xam naa ni fu mu ne nii moom waaw waaye nag rek. wa lepp toy la rek. seigne <laughs> Tuubaa neewon woon murid lu dal toy la. deug la wér na waaye Yuru dal toy la. te toy mom murid yepp toy lañ def rek. ñepp toy rek wa ñu ngi bu baaxa baax tay ñaan yalla Eh, sun borom defal ñu jotay bi ñu daje ci tawféexi sëriñ bi gannaaw bu sant yalla jullu ci yonent bu tedd bi waaye sant suñu yaakaar ñaanal ko baax cheikh mohammed muntaha mu yàgg fi ak sëriñ cheikh jëm ñaan sun borom doon leen fa yagal ba yéene ji ak pass pass di ñam ci liggéeyal sëriñ Tuubaa cheikh ibrahim Fall lepp ñu yeggale ko ci barke maam cheikh ibrahim Fall santat bu baaxa baax ni nga ko waxee tey dañu am gan ko am gan tëraani signal lin badal te tay mom sëriñ Tuubaa gamoo lañ bëgg a waye taxaway taxawaay cheikh ibrahim Fall ci ñibbisik sëriñ bi ci gamoo Serigne Cheikh Mbengue di jàmbaar ci yoon wi koo xamante ne bii ci keppaaru Cheikh Ibra faal la yaroo ndax kër Cheikh xam nga ne ci Thiès ku fa yaroo ku nekk yaru ci keppaaru Serigne Cheikh Fall Baye Góor lu bëri da ko xam yoon wi <laughs> tey ñu fas yéene koo dalal nag ñu ñëw jotaay bi di ñaanal bu baax a baax mboolem mbokk yi ñu topp talaata jot ci waxtu wi ci jotaay bi ci biir réew ci bitim réew ngir di ci dolli ko ak jàngawaat seen pas-pas ci ki nga xam ne mooy murid bu mag di Cheikh Ibrahima Fall Baye Góor diina santaat bu baax a baax nag ci jàppandi gi mu jàppandi ndax amul jot bàyyi ko ba gàppoo xam nga jamono yëpp ñëw fii ngir mm-hmm. yeesalaat liggéey bi fii xam nga ne saa su ne mi ngi daw rek moom mm-hmm. amul toog waaw loolu nag eh, di ci jaajëfal bu baax a baax itam murid ya nekk foofu ñu ko jàppale ci liggéey bi mm-hmm. kilifa yu bari ñaari su ñëwee ci loxoom la ñuy jaare wax dëgg la ko tàmbali sëñ Mouride Fall ba ci njaboot gi yëpp ku ñëw rek yaa ngi am yéene jàkkaarloo Serigne Cheikh Mbengue ngir ànd ak moom waaye muy koo xamante ne bii xam naa roq yam gis ca maayomba ak fépp du ñàkk tey faaw mu leeral ñu ak fi ñuy wax doju wiir wiir yooyu yëpp dégg lañ ci am nag yooyu yëpp sëñ Cheikh tey nañu ci indil incha allah ay leeral ci kàttanu sama borom. dëgg la incha allah sëñ Mamour ndeysaan ah. kon ñu dalal ko baax ni nga ko waxee. Euh, sëñ Cheikh Mbengue Baye Fall maa yomb suñ ko waxee rek xel yëpp dina dem kon si Gabon. ndax nag am na fa taxawaay bu am solo ni nga ko waxee. Mm. waaye sëñ Cheikh Mbengue. mu mm. sëñ Cheikh Fall góor. Ah, suñ ko tuddee xel yëpp dem si suñu bàyyi sëñ Ndiaga Diop Baye Fall. di ko ziar bu baax a baax sëñ Cheikh Fall Baye góor. Ah, moom it wax dëgg yàlla. kon sëñ Cheikh ñu jox la kàddu gi nga nuyu mbokk salaamaaleykum. baax da auzu billaahi mina seytaan rajim بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وكن ميسننا من سر سي أسد ما سرف من وسر أيدي الله وسر سر وسر خلق إمسيهم ما جنين وسوات سامي الله تباركب موت موم نحن xamni mom la bay diyo lambo seigne touba def mu tënk si juróomi char yi nekk waaw yi ne yi ne ci fàllaxeeg naas ñu ngi nuyu mbokk mbokki taalib yëpp ak fu mën a ne waaw mhm. ah, di jiital ci nuyoo boobu nag sëñ Cheikh jëmm bi nga xam ne moo toog Cheikh Ibra mhm. te kenn ku ne xam ni bokk na ci ndénkaane yi Cheikh Rahima Fall mhm. ah, fekk suñ boroom a ngi wàcce ci kër sëñ Tuubaa mbër mu ko mat Cheikh Ibra mbëramit di samp te di ko mat te nee neewoon na bu ngeen demee ba gisatu leen ki ma fi nekkal di dajale ay addee di ko yot ki fi nekkal sëñ Tuubaa yéen weesu leen ko fi te yotal ko seen bopp ki fi nekkal sëñ Tuubaa waaye loolu dalul sëñ Seex Jëmb bu ko defee kon ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax tey ñaan suñu borom def ci moom miracle defal ko fan gudd woo xam ni day am fanu yonent yàlla nooyin wa ndax njariñ dong lay doon eh. ndax moom nekk fi lu lantinoor lu ñëw rek mu jàllale ci sëñ Muntaxa xalifa sëñ Tuubaa bu mu fi jamonoonteel rek su ko defee ñu ngi koy nuyu bu baax a baax te it comme ni nga ko waxee rek kër sëñ Cheikh Fall Baye Góor ga nga xam ni fa lañ xëyee tey Thiès ñu ngi nuyu sañ Cheikh Ndigal ma nga xam ni mooy jawriñu kër ga moom lañ fa baax ah, di nuyu Serif Assane Fall ma nga xam ni moom la ñuy wax Serif Assane Fall alxuraan mu toog ca kër ga. Ah, bu ko defee daal ñu ngi koy nuyu di nuyu magi taalibe yëpp ñoom sëñ Badra Badra Mbay ñoom sëñ Amdi ak ña fa nekk ñëpp waaye nag ñu ngi nuyu nag. mboolem murid yi mboolem Baye Fall di nuyu nag waa Gabon. ak suñ jëwriñ ji nga xam ni mooy Modou Mbaye Baye Fall nga xam moo fa nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall. Mm. jamono ji sax mi ngi senegal daaw xawoon na tënk waaye naa ñëw tey. moom it ñu ngi koy nuyu ca fam ne. Ah, di nuyu daal wax dëgg yàlla waa Gabon. di nuyu waa Sénégal gépp rek. di ko gën àndal mbégteel bu baax a baax a baax daal waa waaw mbégte googu moom yàlla na sax dakk rek sëñ Mamour mm-hmm. kon ni mu ko waxee rek Serigne Cheikh Jëmb Fall mm-hmm. ñaan suñu borom gën ko fay mm-hmm. ndax li nga wax rek si lantin gi bi si gën a bi si gën a si la sax loxoom du mës a jógee ndax nag xam na loo looy la ko uh, uh, maam ju tedd ji bàyyil bi si mujj xam ngeen ni eh, téeméeri uh, million mooy cent million yoo xamante ni ni dañ dañ rek ñu ngi si bu rëy yi nga xamante Cheikh Mouhamadul Cheikh woote na ko si université Touba bi di ñaan suñu borom. Hmm. mu àggale ko jàmm. Hmm. te ñu ànd ak moom te mu hmm. naal yeneen naal. te mbokk taalibe ànd ak moom bu baax a baax. waaye xam ngeen ni loolu it sëñ Cheikh Mbengue fa lañu bëgg a dugg ndax nag. maam ju tedd ja maam Cheikh Ibrahima Fall. xam ngeen moom it noonu rek la nekkoon. waaw ndax ay ay ndawam. dañ doon euh, genre nii lañ doon def dañ doon. dañ doon baagante doon baagante waaw nga xamante ne bu kii dem sëñ Mamour ni koy waxee saa su ne di yóbbu sa ndaw dara dem ba Gabon waaw euh, euh, euh, mu ngoog nga xamante ni sëñ Tuubaa fu ne mhm. ndaw Cheikh Cheikh Ibra fekk na ko fa mhm. nga xamante ni lu jiitu muy dem ci tukki bi ci mhm. Gabon daanaka noonu la dëkkee woon ak fépp fu mu mën di nekk te it fépp fu mu mën di nekk yi jàppal ni ndigalu sëñ Tuubaa moo ko yóbbu waaw sànq ñu ngi waxtaan bu mooy tuddal ñetti deer yi kon wàccaay sëñ Tuubaa ngir dem si tukki bi diggante mag Cheikh Ibra nekkin waaw moom tey moom dangeen am murit bu spécial boo xam ne euh, maanaam moom euh, tudd nañ Gabon waaye nag balaa Gabon dongob sëñ Cheikh Fall Baye Góor la waaw mi nga xam ni moom it kenn ci njabootu Cheikh Ibra la doon ku ràññiku waaw ñu juddoo ci biir këram Thiès mu yóbbu ñu daaray tarbiya Touba Fall ah, ginnaaw ba ñuy door a toll fii ñu toll génn génn nag dox ay jéego nag wër wër àddina bi te ñëwaat bu ko defé euh, ñi ngi xamni mam Cheikh Rahim Fall Bab Mudina bari na nu ko nit ñi di jangate te am lu dess ci jangat mi leneen lu wara jangataat hmm. ndax dama nango ci mag mu am solo ci yoon yu ñu naan ko sëñ Ibrahima mbocc nga xamni ci keppaaram la yoro ci kees. cinquante farme pour gàncax. wa Ibrahima mbocc daf ni ma. Cheikh de ndab bu sété te du bënn ku yor sa alal man ko ci denc. mané ko waaw mbocc mu ni ma dina denc sama mbir ci ci yow de. mané ko bismillah mu ni ma dina waxtane yow tay ji lo xamni lu am solo la waaye mbirum biir la moom sëñ Ibrahima Mbodj ca jamono ma ne ko nu mu demee mu ni ma maam Cheikh Ibrahima Fall mii digganteem ak sëñ Touba xaaruñu ba ñëw jamono door a ànd na ba yàlla nekkoon rek la ñu ko nga xam ne Cheikh Ibrahima ba muy sant Fall kon Kajoor sant guñ Fall faam lañ santoon moom nag nee na eh, ba mu nee koo mu jàpp ni moom suñ borom da koy yabal si jamono nee na mu dox ay jéego gis sëñ Touba tëdd ci njoowaan mu ni wëlbet kii de daa ñu yónni jamono te axiru samaan la jamono ju mujj la ju jafe ju naqaree dunde jooju jamono nak man tayina ci dem na jamono ay yoon mam Cheikh bamuy bëgg andi ngan señ bi fittasu ko mu gestu ko muniko nan dem làqal ci jamono joojee nga xamni mom lay rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, yabal ma fa ma ma ma war ko laq ma war ko lijeenti neena bamuy wax rek laata kàddoom daanu rek mam salifa rakam ji ni siget ca don jowan ga señ Tuubaa teud joxoñ ko baram niko bo bo nango and ak mom bu demee adna loko nangul rek ñu nangul lako nee fofu la ñëk gisante ak ki ñaan Abdoulaye yaqin Diop nee na ca roon njowaan googee rek la Abdoulaye yaqin momit yëkëti bopam niko manit de nonu sama wëlër wi sali wax rek loko nangul rek buñu démé demee dal ko nangul ndax seigne Abdoulaye kenn xamul fu mu dëkk wala fu mu cosaanoo la ak Cheikh Ibra di ko wër ba fekkon dal bu ko défé nak nee mom mom lolu mo indi lolu mo indi Cheikh ibrahim Fall fi ndax kenn musna gis nit ku xey di dund ba am ñaar fukkat ak juroom ci sa kër baye jang liñ wara jang lepp wattu alquran ndax xam nga nit ñi sax dañuy jum ci bari ndax gis nga liñ nane biran jabi ma ca ngaay cheikh Ibra lah. wax ko biran jabi ma ca ngaay biran jabi ma dan tok ca sangay ga di jangale alquran la mm, sangay garabuk sanggai kajoor xam nañ biran jabi ma dan tok ca sangay ga di jangal alquran manam biran jabi momé moom may ñu Amadou Fall may ñu Seex Ibra mm. sax xamna da dana ñewat yeneen émission yo xam sax dina leral digënté dina leral digënté Cheikh Ibra mm-hmm. ba ñu ba ñu dellu ca euh, l'empire du l'empire du Mali mm-hmm. ba ñuy jógee ñoom ba ñuy ba seeni maam ñoom di jóge foofee euh, ku ñu naan ñuq fam ak maxaseen di jóge ca Pam Koundaare ca l'empire du Mali di ñëw Sénégal si di sañ si suuf si paleen dëdd nga xam mooy dëkk bi jiitu ci Kajoor waaye kon loolu lépp day wane ni booba ñoom faam lañ santoon waaye Cheikh mii nag moom la ba yàlla nekkul rek la ni koon faal man kon moom moo fi indaale faalam ci faal ja da daan jël baram bi delloo ci sama dënn sama faala mm. mooy falu fal moy falu neena faagi dina ci fal bu bu namee folle ci la koy folé fal googee mom moy kadior ak ak nguur waye mom maam Cheikh Fall dama bëgg ñu xamni ni eh, bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi xam nañ ay mamam ci lu ëpp lu weesu addunaan hmm. man nañ ko yobbu fuko gëna sori waye ay teggi na tax ñu japp addunaan ni moy moy maami Cheikh maami yonent bi yi nga xamni ku ca yam manam jox nga ko ay teggin hmm. waye Cheikh Ibra nak mamam ji nga xamni mo ñëk jang alcorane tok ci taatu garab jang fa alcorane ba mokal ko hmm. moom mooy dammel man dessit fal ah man de Siteu Fall momé nak mo jang alcorane ba tay ji bo démé Palen de fek fa guy xamna bu ñuy def émission bi dañuy and ak yeen mo jur yoro yoro njabi Fall wa manam manam biran ki moom euh, nu ko waxati man de Siteu momu mo jur yoro njabi ak biran njabi ba mu nelawee la ñaari domam yoy yoro njabi ak biran njabi dem sanc dem sanc njabi Fall seen baay moo tudd njabi patakuli man njabi patakuli mooy seen waye waye ñom euh man de Siteu mooy seen baay njabi patakuli seen nday nak bañ ñëwee mom lañ tudde dëkk ba ni fii mooy njabi waaye ba ñu sanc nag ñoom ñaar dañoo dañoo ndar képp dëkk ba dax eh, mag ja mooy yoroo njabi moo dem sanc tuddee ko mboppeen rakk ja di di biraan njabi mii nga xam ne mooy maami Seex Ibra moom it dem sanc ca wet ga tudde ko jëppal boo demee njabi tey jii ñaari penc yooyu nga fa ba tey jii hmm. bu ko defee nag loolee nag ba mu amee nag maanaam foofee mën nañ faa wàññi juróomi maam yi Seex Ibra ñoo xam ne ñoom ñëpp alxuraan lañ mënoon wattu ko jàng ko ci seeni maam di jàngale alxuraan am xam-xam bu leer ba am ba làq ñaar fukki at moom Seex Ibra Fall ak juróom hmm. Sun borom door ko feñu ni ko contrat ba nga signante won ak amadou Khadim ci azal jotna kon rasi ko jox ko sey pexe rasi ko jox ko sey pexe nak lu jara waxtane donul bat buñu bu romb di wéy mhm. lepp lo gis ñukoy def ci yoonu murid ta ku ko baye doto don murid cheikh ibrahim ko indi ah, mo a sukk ay wo mhm. mo njëkk ram mam cheikh ibrahim Fall mo njëkk lamb dugal loxo ci poste génne tek ci loxo seigne touba ni addiya mo njëkk wuyo mbacké mo moo jur dom joxé waye lepp lo xamni Cheikh Ibra musna ko defal seigne touba Tuubaa tay ji bo set la ñu koy defal Cheikh Ibra ci ay million million nit ño xamni nangul dañ ko Cheikh Ibra borba lañ ko fay rek borba wa fay nañ ko borba waaw bo demee ba Afrique Sud gis na fa ay ay South africain yo xamni mhm. seigne Cheikh Ngounda bu ñewé mhm. ni ñuy sukke ak diram lañu ñuy ci mom ndax ndax ndax mbirum Cheikh Ibra momé ne ñom rek ñom ñu diko yek mhm. yëkk fofa dañ dañ leen fa fay bor bu ko defé kon kon yaakar na ni ah, Cheikh Ibra ba muy dund nag ci teunk bu gatt nak ndax ñetti at la top maanaam moom Cheikh Ibrahima Fall liggéey bi mu waroon liggéey sëñ Tuubaa da koo tënk ndax daa boole liggéey ak guddi guddeeg bëccëg mu boole ko di liggéey loolu moo résumé liggéey ba mu waroon a liggéey ba mu ku ci daanaka ñetti at nga xam ne maanaam booy seet diggante fee mu tàmbalee liggéey ba di ngi gis Bàmba geenu ne woon nga xam ne dañu wax ni waaw dañu wax ni ñeenti fani koor la fa ñëw ba ñaar fukki fani koor ga mu door a signé ak moom contrat nga xam ni kon sëñ bi bàyyi na ko fi boppam ndax aal jam ko doon wëree di ko yëg nga xam ne moom moom Cheikh Ibra nii sëñ bi doon def ba muy wër tubaab di daw jëm penku ba caag mu daw di jëm soow Cheikh Ibra doon na ko def ca njabi di daw di jëm fu ne mu di fa jëm ngir di xeeñtu waayam di sëñ Touba te boobu jotugul waaye ba nga xamee ne nag suñu borom xamal na ko ne ahmadu moom mu nag yonent bi laa alayhi wasallam feeñu na ko rabbi azabaka bil imati wala turabbi darsi sa saaba yi yar leen ci pasteef waaye bu leen bu leen bindalati di sukkandikoo ñoom ci mbindum kese loolee nag ba mu amee la ko suñu borom yëgal cheikhul Fall fam tollu nak mu yek ko nak xamni lolu jot na te ñi fi ne nag ñoom xamuñu lolu ndax bañu ñuy contrat ba ñom boba lolu du won ñom motax nak mom mu joge fofé ci njabi nak ku xam njabi xam fi nga xamni euh, fi la Tayba Tayba gi nga xamni fa la fa la Cheikh ibrahim njëkk jaar Tayba Dakar Tayba Dakar mhm. ci dekkup sëñ Muxtaar Touré bobu mhm. ma non de de ma ngi wax sax dekkup sëñ Muxtaar Touré waaye Bamba sëñ Bamba sëñ Bamba ki ma fa newon mhm. sëñ Baba Touré ba fa ne woon maanaam man Cheikh Ibrahima Fall jaar foofee nag fa la gisanteeg sëñ Adama Gueye ak sëñ Moukhtar Touré moom moom ma doon wax lii waaw nga xam ni euh, kon ki jóg dem di wëri nit mm-hmm. koo gis mu bokk ci kooku sax soo xoolee jëm yëkki ni kii gis na sama gis na kamay seet Seex mm-hmm. Ibra ku musa ñëw ci moom boo ñëwee boo ne ci sëñ Tuubaa la jógee sa jëm gis ci say bët jëmmi sëñ Tuubaa ci daa xam li mm-hmm. waaw daa xam li xew nga xam ni nag kon euh, damay wax ni euh, dama bëgg daal ñu ngi koy ñaan taal bépp di leen ko yelwaan nañ xam ne Cheikh ba kenn du tagg ab sëriñ ci ab buur dañuy tagg ab dañuy jël ab buur di ko di ko di ko dàkkantal ci ab sëriñ ndax ñoom ñoo ñu ñëpp nga xam moom la ñu fan fanweeri damel ak ñett ñoo falu ci Kajoor waaye tey jii kenn koo ci mën a taxaw daanaka wane bàmmeelam wala nga wane dara lu bokk ci moom loo xam ne dañ koy seet amut boo déggee may bañ sax comme ni ñuy tuddee damel may sa bigé naan may sa bigé ku ma faal mañ boolee faraxat yi sëñ moo damante bokk mu saan wax du ko nopp ndax may sa ci askanu Amari Ngoone Sabel la bokk ma nga faatoo booy jub Bambey guy yooyee ngay seen foofee la xaram njaar ndem amee woon foofee lañ ko daanee ak far fasam wattu doon faraxati boole ko façon rey faru xati la ñuy wax sax mooy faru maanaam faru xati am xam nga xati picc yi dañuy ne ca suufub teen mu ne faru xati war na amu war na amu fit kon noonu la tuddee fasam woowee kon gars yi la ñoo xamuñ dara xamuñ ci dara lañ ci xamul seet kooke xoolal diggante bii nga xam ne dañoo saaran kookee ah. Amari Ngoone Sabel mooy seen baam waaye Cheikh Ibra moom Mandesi tey maamam mi jàng alxuraan ci guy Mandesi paaleen am pas-pasu dem sañ ci dëkk dem sanc dëkk bee nga xam ni ay do ay ñaari taam dem sanc dëkkam bee nga xam ni mooy njabi faal nga xam ni tey jii foofe la Cheikh Ibra jóge woon seet sañ Touba xañ na kon loolu daal mm. moom lañ bëggoon a leeral balaa ñoo sóobu ci gabon bi ak yi ci des waaw waaw sëñ Mamour dégg nga ko kon bala ñuy sóobu ndax leeral bi mu leeral am na solo lool mm-hmm. Mm-hmm. ndax soo gisee Cheikh Mame Cheikh Ibrahima Fall ñu bëri mm. buñ koy wax euh, li si bëri kàddu ceddo gi maa ngi ah. tuub si wax ji ah. ñu si bëri dañ koy euh, dañ ko koy dugalaale daan si Euh, maanaam deret di ceddo beeg noonu waaye soo ko déggee ni mu waxee ne lu toll si juróomi maamam ku si nekk xaafidul quran la te soo xoolee ci ñaari wàllam yëpp foo dugg rek amal ni moom si fu mu jugee te it bu dul loolu sax sa ëzzal la dafa dafa dafa dafa dafa yàgg lool di pacte boo xamante ni te suñu borom nag bu la naree liggéeyloo ci lenn li daf lay waajal jaaral la ay jaaruwaay kon taarix am na solo lool xëy na nag taarix baaxoon a wuute waaye taarix bu bu bu bu bu yenn maanaam bu leer ku ko dégg rek maanaam da koy mën a nangu bu baax laataa moo dugg nag si wàccaay Sëriñ Tuubaa si gawon bi maam Cheikh ñoom ñaar ni ñu ko doon ni ñu ko doon ràbbantale ak ni ñu ko doon dundee laataa hmm. sëñ bi dem si gaw tubaarkàlla <coughs> xam nga sëñ ñu ngi lay jaajëfalaat baax a baax eh, eh, macha allah sëñ Cheikh moom indi na loo xam ne dafa naa ne point yi mu fi jot a tënk sax benn bu ne jotaay la ndax li mu wax ci Cheikh Ibra ak askanam mm-hmm. waaye tàmbalee ko ca bu yàgg nag nga xam ne jiitu na la ñuy wax paaleen dédd ak yooyu yëpp ñëw na indi na ci lu leer ca Mali mm-hmm. waaye tamit indi tamit yoo xam ne miinoo nañ ko dégg ci aw tagg ci nga koy taggee Cheikh Ibra mu ne wax gars yi dañuy saaraan rek léeg-léeg wax loo xam ne sax dañ ma koy laaj mais du ma ca mën a ci dégg dara daal mm-hmm. du ma ci ama ci yëg daal xam naa ne dañuy njam njàmbaas boole rek ba fexe ba doon dara Eh. waaw waaye Cheikh Ibrahima néewul foofu nag bi ci des itam dañuy jaawale ceddoog buur ak yi dañ koy jaawale Cheikh Ibrahima ca démb buur <coughs> danaa dammel moom ci la joro sant Jóob waaye Fall daan sant maami maami maam Rafa rek daan doon dammel ci Sénégal su ko defee nag eh, comme ni ko sëñ Cheikh waxee xam naa beneen jotaay waaw fees dellu waaw di mm-hmm. dañuy dikkaat ci beneen jotaay ak mm-hmm. ko tàmbalee ca nañ de ndax xam nga muy émission spéciale ndax loolu dal na loolu ni dale dalee Cheikh noonu la dalee ku baax ki itam mm-hmm. ndax sëñ bi sëñ tuwaay it ay maam su ko tàmbalee ci jay la ja awa ba Anta Sall Fatmata Sall aw dikk Kamara ndumba daara jëng daaru maam sànq aswal ba soxna jaara fenn fa ne nga ciy indi nag lu yaatu ci ay bokkam te nañ bokki am sant yu baax yëpp daje na fi moom eh. Cheikh ko dal eh, ko defee eh, xam naa rek pour ñu njëkkante waxtu wi hmm. comme gamoo moom namm nañ ko hmm. ok su ko defee sëñ Cheikh hmm. xam nañ ne comme sëñ Touba 1895 la départ fii Mbacke Bari Jolof dem Ndar te yaakaar naa ba mu demee it lañ ko doon wooye bañ ca waa noppee ak moom dañ ko daa di embarqué ngir mu jaar fi dem dem Gabon loolu nag damaa bëggoon signaler su ko defee nga ubbil ko foofu mu daal di mën a dugg nag direct Gabon ndax mel na ni bi sëñ Tuubaa jóge fii boobu murid yi kenn xamut xamuñu woon fan lañuy ñuy yóbbu sëñ yaakaar naa kenn xamutoon fu sëñ bi jëp waaw waaye sëñ Mamour waaw kay bëggoon naa euh, bëggoon naa waaw ñu wax euh, préparation ba sax lu jiitu sëñ Tuubaa sax di di dem Mbàkke Bari ba di fa jóge naan day dem ci géej gi boba da fekkon mom mu yebal Cheikh ibrahim Ndar mhm. Cheikh ibrahim jitu serigne bi Ndar Cheikh ibrahim jitu serigne bi Ndar mhm. waaw loolu lan moy sababu Cheikh ibrahim serigne Touba defar ko yebal ko fa yebal ko Ndar wa eh, wa manam eh, am am na bañ mu recc ma ndax legui da nga tag maami serigne Touba ba tuddi ci jay la ja waaw jay la ja moom ngay gis wa am amari ja wa domi bayam waaw moom lañ tuddé amari ngone sawel bi ñëk a nekk da mel ci kadior wa di nga xamni kon fofu la mbacké ak faal njëkk amee relation première relation bu njëkk am. Mhm. waaw. man maanaam loolu nag dama lay. maanaam foofu la amee waaw. nañ ko def émission spéciale waaw loolu de lii moom ndax li muy wax ma xasee dugg wala ñu tege ne rek li muy nii lu am solo la si te it dañ lay ñaan mm. yow moom daakaar naa ne bii moom mm. ñi ngi ñaan suñu borom mu doon ay yeneen i jotaay waaye boo xamante ni mm. ci càllaw leele rek la ñuy ñëw ci la ci loolu moom jotaay spécial la incha allah mu ngoog nga xamante kon sànq tudd nga fi lu am solo sëñ Mamour wax la ko muy kon euh, Cheikh Ibra waaw sëñ Tuubaa daf ko njëkk yón yabal euh, Ndar Ndar waaw laataa moom sax maanaam muy jëflante Tuubaa bi ca kon kon foofu la ñuy dugg Ndar waaw kon foofu la ñuy dugg maanaam sëñ bi maanaam dama ni woon tënk googu nga xam ne Cheikh tënk na ko liggéeyam boole guddi ak bëccëg di liggéey waaw maanaam mission daa teel jeex ba xam bi ko sëñ bi yeewi sax mm-hmm. maam Cheikh Ibra nanguwut a dem daa jàpp ne sëñ bi da koy dàq maanaam ba mu ko njëkk ni ko kaay ma yebal la ndar mm-hmm. maam maam Cheikh dani ko Mbàkke de xam naa sama nii ma mel moo xajatul ak nii nga mel ci jarab barab bi moo tax nga di ma dàq te fekk te du loolu mission bi bëgg a jot mission bi mooy bëgg jot sëñ Tuubaa nag dajale mbooloo mi ñu teew mu bind ñetti deel mm-hmm. sëñ Maam waaw mu ne ñetti deel yi koo xam ne xam nga lu ñetti deel yi di tekki rek kooku am na liggéey mu la bëgg a def loo ñi nga xamni ne ñoo gën xarañ ci mag ñi biñ ñëwé dañ ni daru dunia daru barsax ak daru akhir. Hmm. sëñ bi moom jublu ci lool hmm. bi mbolo mi ni tek mam Cheikh Rafal daal di jege si sëñ bi ni ko Ibrahima ci nga hmm. ndax mam Cheikh ba daawut jiitu ci yi sëñ lu lu lu am ndigal lu feddali ko ndigal lo xam dañ la koy digal nga taxer lu ko bañ feddali ko ba mu woni ni la lii ndigal ci la mam Cheikh ne ko mbakati buñ ci sañee wax da nga ne kenn ci sa njabot gi na dem ndar ndand dakar mu ne ko on Cheikh ba yow lañ fay wax ndar ndar na Dakaaru nag bam ko fa yebal booba sëñ Touba yonent bi salaa sa feeñoo bu ko ci jàkkay daal xudos ba di ko ba daan ko génnal dëkk bi di ko wutal ay condition naan ko fokk di nga génn dëkk bi ndax ñaan nga ba su ba nasaani duñ sa noonu jamono duñ la fa mos sa fekk mukk te sëñ Touba xam na ni la mu bëgg ci boromam du ko am mukk te gasewuñ ko noonu jamono léegi nag ba mu xamee ni nag administration bi nga xam ne ñoo ñoo nekk ndar ñoom ñooy noonu jamonoom la fa yebaloon Cheikh Ibrahima ndax Cheikh Ibrahima relation bi nga xam mom moy relation avec des institutions mm-hmm. relation avec civilisation ndar ak mm-hmm. kilifa yi ne woon booba ndar koy tudd rek tay gi ci le l'islam Sénégal naka ma nga fa booba ndar ñom Cheikh Sadi bo nga fa ñom mm-hmm. Alaji malik ñom Amadou Ndiaye ñoom Amadou Ndiaye maa bee mu mag mom ñom sëñ As Camara njaxasu nit dal ñepp nga fa mu yabal fa Cheikh Ibrahima nak mi nga xam ni euh, boo dee Eh, ma nga jógee njabi rek ñëw ci ah. sëñ bi rek laxasaayu takk liggéey rek mu ci melukaanam woo mu mel rek mu yebal ko ndar moom maam Cheikh Rafal ba mu demee ñoom nañuy tekkee alxuraan ak mom na mu dégg alxuraan hmm. da daal di woro la ñuy wax da di nek ay contradictoire ndax ñoom xam nga alxuraan ci boppam firi ko dafa xaw a jafe hmm. ndax ñoom buñ ko fep fuñ kupp mam Cheikh Ibra rek hmm. la leen lelen Cheikh lelen mu lelen leen lelen mu lelen moom leen di lelen da leen di convaincre te day gën lelen seenum njàngale léegi loolu nag bi nga xamee ne am na ah, ci ci ndar googu nga xam ne ci la maam Cheikh njëkk a def première pas bi maam Cheikh Ibra accès mi ngi wàcc ci kër ku naan As Camara. boobu hmm. As As Camara sëñ Touba ak maam Thierno Birame demoon nañ fa lu njëkk sëñ bi di woote yoonu murit. ba mu demee maam As Camara jox na sëñ Touba wér du xaarir woo xam ne silsila bi dogut jox ko sëñ tubaa ni ko mu yóbbuloo ko di jël na mbalaanum der moo xam ni ah, mbicc mbiccum mbalaanum der ma. señ bi daa woolu señ ndab abdourahman Lo ko ni ko ñawal ma ci turki ak ak tuwe mu ñawal ko ci turki ak tuwe boo déggee ñoon señ Ndam abdourahman Lo ab teeram la woon loola ay secret ndax dañu ko condition yi mooy puso booy dugal day ànd ak ay alxuraan ah. ñaween woowu la ko señ Ndam ñaw mu ne ko nag boy bu la bu la sa booy sax sa noonu jamono nga yóbbuloo ko loolu loolu loolu mu ne ko nga jiitloo ko loolee nag ba mu amee ca saase sëñ bi ba mu bañ ko ñëwee la desoon ca mbicc ma lenn la sëñ bi da ko jox maam sax antani ko bis bu bis boo jotee sa noonu jamono yow it nga yóbbuloo ko nga xam loolu la desitu mbicc mooy maam sax antani da ko yóbbu seeku bi nga xam ne maam Cheikh Ibrahima ñëw na fi nag ak nii mel ak nii mu baaxee maam As euh, yëg na li ne ci Cheikh Ibra ndax wàll wu ñëpp xam na naan Cheikh Ibra day yow yëg naa ci sa baatin bi ngay jéggi géej ba mu koy wax fekk na xam ne Cheikh Ibra bu xëyee daa am pas-pasu nar a dem maam Cheikh ni ko man de dañ ma fa yebaloon rek may liggéey si liggéey bu noppee rek ma daal di dellu si mm. te fekk il la ja tax sëñ bi yebal ko fi mooy dem nga fa sëñ ba demoon ak wér du xaadir wam ko jox jox ko aw jàkk jox ko loolu ni ko ahmadou xanaa xamoon yow yaay sangub waa ahlu suudaan mm. ndax sëñ bi daa wax ci guddi gi ni maam Thierno ni ko teenoo jóg dem wàllu gànnaar daa mel ni kii de li ñu wut am na fi waaye daa mel ni na mënu ko jox ba mu ko ko waxee ci guddi gi bi ñu yeewoo ci suba maam as wax sëñ Tuubaa ni ko ahmadou yëg naa nga bëgg a jàll wàlli bii daan cee dëkki naar ya waaye xamoo ni xanaa Ahmadou xamoo ni yaay sangu waa ahlu Soudan ndaan ni sëñ Tuubaa toogal te déglu ma bul ma tàggu say mbir a ngeen man démb laa la fàggu yow Ahmadou mu ne ko sàmba tukkulóor ka laa doon sàkku moom laa doon sàkku suñ borom suñ borom daal di daal la ci far boole waale nga xam ne moom aas ci boppam tees na ba yaakaar ni moom moomaale sëñ Tuubaa sax <laughs> ba sëñ bi yeewoo woo maam Cerno ni ko indil ngiseel yi maam Cerno indi xaalisum gurdu bu tollu ci jooni jox ko askama mu genné barkeel yi may wax jox ko seigne Touba lolé waralon nak seigne bi yabal fa Cheikh Ibrahima Fall ko leuré ba fa Cheikh ibrahima démé nak as yëg na ni dafa japp ni Cheikh ibrahima talibem la muniko nak da nga xëyoon gis ma dañ ma fay yabalon ci ma lu liggéey bobu maté rek ma daal del nga xamni noné ci la mam Cheikh ibrahima jógee géej gi gam koy wax moy tugu gi nar a dem ak nday jall gam na la jall fo war fa wuti tol war faa nekk di fa liggéey war faa jëlee ji ay kàngam yoo xam ne nag bokkoon na ci mission ndaru Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima waroon naa jaxasoo waa Ndar booba jamono murid yi daawu ñu yalwaat ñu aju ci Cheikh Ibra mhm. ñu mel sëñ Ibrahima Thiam ak ñeneen ñi mu yóbbaale woon ñooñu bu ñu xëyee ci bureau tubaab bi lañ doon liggéey nekk comme ay docker mhm. wala ñu di leen yónni wala ñuy wala wala wala ñu ci marché bi di jaay lu nekk ñu di ko mhm. def di ko liggéeyee yooyee nag daf leen daan permettre ñuy mën a indil Cheikh Ibra ay information yu muy mën a xam nga xam ne àggoon na ci naan leen sax kër tubaab bi ak bureau yi bu ngeen fa gisee kayit bu ñu sànni wàcc ko sax bu leen wàcc dara di leen ramasser lépp ñuy indi mu koy liirlu ngir mën cee dégg turu waayam ji hmm. ci ndax booba xamut ci booba xam booba kenn xamut sëñ bi lu leer ndax tubaab bi nanguwuñ ko wax te booba xam xam nga ni mu demee ba ñuy ba nga xam ne tudd turu sëñ tubaab rek danger la hmm. tudd turu sëñ tubaab rek danger la woon nga xam ne tubaab bi objectif bi ñu amoon moom mooy dañ ne woon bu deen garab la dañ ko bëgg a déraciner fële bànqaas yi dajji but ba sànni ci àll ba ñoo la ñuy wax tasaare dong ngay balaa moo dellusi loolu moo doon objectif tubaab bi mm-hmm. nga xam ne boo gisee tax ñu li ci boolee labbe yi labbe yi dañoo amoon ñoo mën mission ñëw évangéliser ñu tubaab bi am mission ñëw coloniser ñu ñoom ñu bokk seen ñaari objectif daje nag loolu nag ñu dajeeg sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa semmal leen dina dina feeñ ca kanam buñ buñ buñ àggee Gabon hmm. bi nga xamee ne maam Cheikh Ibra nag hmm. ñëw na def loolu ndar mission bi njëkk am ci ndar li tax mission bi njëkk a réussir dafa dekkal nit hmm. waaw loolu nit ñi yàgg nañ ko dégg waaw tey jii ku yeewu woon suba ñu ni sëñ sëñ sëñ Ali Badra wala wala sëñ Mamour dekkal na nit ci Dakar bu suba nga siiw maa la wax loolu loolu sax. ba ko Cheikh defee ndar nag nga xam ne boobu mooy dem bu njëkk ba defee ndar nag nga xam ne mooy première. action bi Cheikh Ibra njëkk a def ba mu demee ndar. nga xam ne loolu dafa daf si noppi rek daal di delluwaat. waaw gannaaw si nag ba mu fa delluwaat. ba noppi. waaw mu ñëwaat sax. nga xam ne ngir ndax xam nga Cheikh Ibra xam nga ba mu demee ba installé ndar. Hmm. buy buuse ndar yi dafa daa installé ay nitam ñu ko fi nekk man installé administration nitu amee administration hmm. ne la installé ay murit hmm. yu mu doy loo xam nga Atoumane Diop sunu maam jooju waaw c'est Atoumane waaw bokk na ñi nga xam ne ñoom nekkoon nañu nekkoon nañu ndar lu jëkk Cheikh Ibra di ñëw ndar ànduñu fa da ko faa fekk da ko faa fekk nag ak Cheikh Ibra daa am lu ñu bokk waaw dañoo bokk dañoo bokk njari waaw booy booy Atoumane Diop xañ na mënu ma cee wax ndax xaw na maa jege. waaw euh, yugo ma ca njare lañ koy wax. ay maamam njare lañ nekk mu xamante woon ak Cheikh bi ci jamonoy ndaw. mu dem fekk ko ndar loolu moo tax seen relation teel a jaxasoo ca ndar. yàgg nañ rek ndax xamoon na ba pare xam ko ci ndaw. waaw Cheikh Ibrahima yàgg a wuuteeg nit ñëpp. Mm-hmm. yàgg doon nit ku ku exemplaire ku am xam-xam ku mën a jaamu yàlla ku neex a jaxasoo. waaw loolu Atoumane xam ko ci moom nan nan la xamee ni yóbbu nañ si bi Gabon. a ko Cheikh Ibrahima waaw waaw dama man man dama a dama bëggoon a àgg. maanaam ci installation bi mu def. ba lu jëkk sëñ bi dem Gabon. Hmm. ndax 1909. waaw 8 9. ci la àgg ci dëkk ba nga xam ne fa la fekk Cheikh Ababacar Lo. mu jébbalu ci moom Cheikh Ibrahima ñaa ngi jébbalu ci moom sëñ bi demagut sëñ bi génn gut. Hmm. parce que mille waaw waaw waaw yàgg na. 1889. Hmm. Cheikh Ababacar Lo mais tëdd ca Thiès. ah ndax sëñ bi ngi génn 1895. waaw kon kon 6 ans lu jiitu sëñ bi di génn fekk na Cheikh Ababacar Lo aju ci Cheikh Ibrahima. Euh, sëñ mën ngaa ñaan ñoom ñii booba ñoom sëñ ak ak ak ak sëñ ak sëñ ak sëñ Maafaan Ñang xam naa sëñ Fallou mooy dégg sëñ Modou Gueye Ñaay xam nga ñooñu sëñ Baye Ndiaye waaw booba jamono mm-hmm. loolu laay wax ni nag loolu laa ni nag booba loolu moo jiitu génnuk sëñ bi Cheikh ba mi ngi installé rek installé na fii dër mm-hmm. tubaab bi soxla ko ndax euh, ci nangoo liggéeyam mm-hmm. mbay mi ak ouvrier yi ñu leen di servir ah. mu doon nit ñu jub ñoo xam duñu warta duñ ko yàq duñ leen yàqal dara ñu soxla ouvrier Seex Ibra ci Ndar fépp ci ci nja ci jaay ak lu mu mën a doon rek comme ni ma ko waxee woon hmm. soxla tamit nitam ñiy dem ca àll ba bay ca dër indi Ndar di si nga xam ne wax nañ ni tubaab yi dem nañ ba booba jamono xam nga ay feebar dafa bari woon te nit ñi amuñu woon ay médicament ni ñu ko amee ci faju hmm. ñu ne ah. am na tubaab boo xam ne soxnaam daa wéradi woon muy mu koy jox ci muy jënd am habitude di jënd ci dongoy Seex Ibra yi ay ay ay lujum lujum yooyu nag ba mu ca lekkee mu faj ko moom tubaab boobee dañ dafa bëggoon sax moom mboolem mi seexab di jaay si moom di ko jënd moom nekk représentant ca boobu ca booba jamono xeeti njariñ yooyu nag nga xam ne ci la seexab la def te ndar ndand ndakaaru sëñ bi mooy objectif yi mooy seexab la ci boppam moom na la leer ni nii mu taxawee ndar nii la nar a taxawee ji ndan te noonu lay foofu lay mujjee ci ndakaar te loolu lépp dafa bokk ci mission sëñ Tuubaa mm. waaye sëñ bi bi mu demee moom Jolof ba 1895 seexab la nekk fa jiitu ko fa ba sëñ bi ñëw ba sëñ bi ñëw fa la fekk Cheikh Ibrahima mhm. ndar la ko fekk ndar la ko fekk sëñ sëñ Tuubaa ko fa jiitu waaw nga xam ne mboolem li sëñ bi def ci ndar maanaam Cheikh Ibrahima ko fa jiitu waaw si waaw mboolem li sëñ bi def ci ndar Cheikh Ibrahima mhm. ko defee du ko defee nag du ko defee nag kon loolu mhm. maanaam noonu la xamee euh, tukki sëñ bi ndax moom ànd naag moom ba dem Dakar maam Cheikh Ibrahima muy bi muy départ fii ci Dakar dugg ci bi sëñ bi départ dugg ci gaal gi Cheikh ngi taxaw ah. waaw Cheikh Ibrahima ngi taxaw kon kon kon maanaam noonu la maam Cheikh Ibrahima Fall dundee foofu ci ci premier temps bi fofu ci ndax hmm. waaw hmm. manam manam manam leg ba señ bi démé ba señ bi démé nan la xamé destination manam destination señ bi yeex nañ ko xam nit ñi xam nañ ni xam nga mag ñu njëkk ñu sax dañ daan wax ni señ baa ci geej gi xam nga nu ñu ko déggé wa hmm. señ Ibrahima sall Njaañ ak señ Mandumbe señ Mandumbe jóge na Xabban señ Ibrahima sall Njaañ jóge Thiès ñom ñaar ñu and dem ba teungé dajal seen ñaari addiya sutti ko ci geej gi daan ni ko señ Bamba say addiya ngok ndax mu ngi si géej gi. waaw sëñ Bésir Sarr jaamu sëñ Tuubaa moo ma ko wax. d'accord hmm? sëñ Bésir Sarr jaamu sëñ Tuubaa moo ni ma. ñoom dajal nañ seen ñaari addee ñëw sotti ko ca géeju Tëngéej gi ni sëñ Tuubaa say addi yaa ngokk hmm. ñoom géej gi rek lañ ko xamee woon waaye bi nga xamee ni. Hmm. toog nañ ab diir kër gañ daloon ca ca ca Tëngéej ca booba jamono ab lettre dafaa ñëw xanaa loolu baatin la. buy xam ni ci ñoom lañ ko destiné te sëñ bee ko sëñ Bésir Sarr ma ko wax. ñu yónnee ko sëñ Ibrahima Sarr Ndiaye Thiès mu woolu ji sëñ mën sëñ Mandumbe ndaw dem wooye ji ko xabaan mu ñëw nee nag bis ba ñu ubbee leerte booba dégg ci ñu wax ci ni Mandumbe mu di saadix ak Ibrahima Sall jasaaka ñoom kenn ku ne mu dàkkantale noonu mu dàkkantale nee na bisu keroog nit ñi dañ doon daw ci sëñu sàkkee ni mu leen seen addiyee gis naa ko ci gabam kon kon kon kon kon kon xam nga ni mm-hmm. waa wax dëgg yàlla ñoom noonu lañ gise woon géej gi mhm. ñoom géej gi niñ ko gisoon boo xoolee sax tukkib sëñ Madou Dagana bi sëñ Madou Dagana bi boo gisee tukkeem bi nga gis trajectoire bi mu jaare dañ xëy na Banjul jàlle wàllu Ziguinchor jaar Carabane Joolay buur tefes gi rek la topp xamul fu Gabon ne mhm. di daw rek atum la mu la ko dox laata moo ak Gabon hmm. moom it beneen yoon ne xam naan bu nu amee émission bu gën a yaatu sax hmm. dinaa leeral ab tukkeem ndax hmm. borom Pastef maa ngi ñëwaat ci yow léegi ndax di sëñ Mamour euh, non sëñ sëñ macha allah ndax moom mooy ubbi na ponk yu bëri ah, xam naa ne daa ñàkk indaale moom moom moom ci fu mu ubbi fu nekk rek jàppal ni am émission la ah. ndax xam naa ne dina ñëw léegi sëñ Cheikh Ibra maam ba mu xamee ni sëñ bee ngi Gabon maam taxawaay bi nga xamante am na ko à distance maanaam si diggante Euh, euh, euh, si Cheikh Ibrahima ak sangam bu baax ba jamono jooju moom mu ngi si tukki ba mm. waaye lu ko jiitu sëñ Mamour xam nga ni mm. sëñ Tuubaa am na dënku yu mu dënkoon Cheikh Ibrahima mm. mooy ci dénkaane yi mu doon def laataa muy génn si tukki bi ndax sëñ bi sax boobu dem na si tukki bi lu sori doo ko xam moom fi nga xamante ni fa lañ ko fa lañ ko jëmale te loolee dafa mel ni si biir bato bi la ko ah, la ko déggee nga xam ni kon moom am na dénku yu mu dénkoon Cheikh rek ci lan li nga xam moo waroon doon taxawaayam ginnaaw moom bu fekkente ne day dem si tukki bi sëñ Maodo. waa kay signal yi euh, jaajëf xam nga sëñ Cheikh. daf mel dafa ñaak am ñaak indaale. te ñaak boobu nag dañu bëgg mu tàqar ñu ko ba mu si. wécc waa kay ko fi ndax xam nga moom saa su ne. waa la ñuy teew ci jotaay bi ndax xam nga bul fa mm. am na gars yi li ñuy wax def thèse ak mel mm. noonu. waa ci jotaay bi jeex na tax ci la ñuy jaare ngir mm. am livre ci Cheikh Ibrahima Fall ba ngoog ngir rek nga mën cee gindi doomu aadama yi moo tax lii lu am solo la toog lu lekk rek jàppal ni lu leer jeex na tàkk nag su ko defee eh, maam Cheikh sëñ Touba moom bokk na ci la mu ko battale woon mm-hmm. muy relation bi nga xam sëriñ bi amoon na ko fi mm-hmm. laataa muy dem mm-hmm. Cheikh Ibrahima moom moo ko ko yoraloon benn nañ ko jëkk a tàmbalee ci diggante ma magam ju ji muy sëñ Mor Diarra santoon na ko addi yi mu daan indi mu xaaj ko di ko yóbbu borom borom saam waaye borom daarul moxti nga xam ne sëriñ bi da koo bàyyee njaboot gi loolu itam Cheikh na daana dox ca loola mhm. waaye tamit ñi nga xam ne daan am yitte yi ñëw di ko di sëriñ bi sëriñ bi daan ko fajal Cheikh daana dox ci loolu mhm. ci des it mooy sañ digaloon na ko mhm. tamit mu sancal ko yenn ci ay daara wax nañ ne Baye Ibrahima ci am nee na bokk na ci kër ga Cheikh Ibra mujjee sanc ci ci nekkuk sëriñ bi te na lu ko sababoon loo xam ne géej gim xaw a mel lu gëj a sancal ku baax ki fenn mhm. tax na ba am lu mu daan faral di gis loo xamante ne bi bis ba mu sancalee kër ga ca ngumba Cheikh Ibra mhm. sëñ Touba mhm. la mujjee gisatut loola mu xam ne kon ndekete sëñ bi kenn sëñ bi kenn maanaam sëñ bi kenn doon wërta toog benn saa te defaloo ko dara loolu nag da ciy am yooyu am waxtaani biir ne moo tax ma wodd ko da ah, ñàkk bis akay moo tax ma wodd ko waaw waxtaani biir ne waaw su ko defee nag Euh, lo loola bokk na ci li nga xam ne sëñ bi santoon nag ko mm-hmm. Cheikh Ibra mm-hmm. bi ci des itam moom mooy maam Cheikh sëñ bi liggéey la ko santoon mm-hmm. ndax ci liggéey la ko joxoñ boo gisee Cheikh ay sele ndar loolu la jublu sëñ bi wax na ko léegi ndar Cheikh Ibra nekkewu foon di wër déedéet dafa jëloon ay ñoñam samp leen loola ndigal la lu ko sëñ bi joxoon ndax defe naa ne li ñu wax ne kuy wax da koy wax saa su ne ku ku am sa marchandise mhm. diko ko jaay ah. da koy taf ci marché mhm. te booba danaka ndar man nañu wax ne moy marché bi ndax li tax ma wax ko moy mhm. njaxasu nit wax nako ko ñepp nga fa won wax dajé bu yew jaaxa siise sëñ ah. Mor Masamba Jéeri Ñang mam As Camara alaaji Ahmed Ndiaye maa bi sëñ Moussa Xir Mbay mam alaaji malik mam Ahmed sek ma jaara ah. Cheikh Sadie Cheikh Samba jaara ñom ñepp nga bir ndax ñepp nga bir ndax wallahi azim Cheikh bi ñew dekk ci seen bir sëñ bee ko jox ndigal gannaaw bi muy dem ngir sëñ bee ko jox ndigal mu ñëw ba pare maam Cheikh Anta la ko booleel Baye Abdou Niang moo ma ne dafa ko na dénkal ma ko as Camara maam as moomu nga wax mm-hmm. ma woon na maam Mor Anta Sali ñaari at ah, te li ñu nettali mm-hmm. kon te mag nga la woon mm-hmm. Sindoodi dëkkoon ci ville Sindoodi ñu miin Ndar xam nañ Sindoodi waaw lal nañ fa ba tey fa la maam as dëkkoon gannaaw si bi moo taxoon Cheikh Ibra sanc foofa ci Gendar mooy ba mu toxoo sanc itam ay tugg ak ndaay yooyu nga wax waaye gànjul ndax Cheikh Ibrahima mënu woon a ñàkk nekk foofu ku mel na sëñ Bayloo mënutoon a ñëw te ba mu jébbaloo mm. daanaka ca daal di jëfee daal di commencé am jafe mel na ñenn ak ñam nekkaloon ba Cheikh Ibrahima toxal ko Thiès mm-hmm. ku mel ne sëñ mun Guèye Ndiaye ak sëñ Moulou Ndiaye Ndiaye mm. ñoom itam ca ña njëkk a jox seen bopp Cheikh Ibrahima fa la bokk mm-hmm. xam naa ñaar fukk ak benn mm-hmm. yoo xam ne bokk nañ ci ña njëkk a topp Cheikh Ibrahima foofee ña Seex Ibra njëkk a defar ñaar fukk la ak benn keroog ba sëñ Tuubaa ñëw daaru marnaan loolu sax sëñ Seex dina ci dëkk mooy retour bi sëñ bi ñibbisi bi mu wàccee daaru marnaan maam Seex dana na boole ak kenn ku ne ab sant bu topp ci yow. Mm-hmm. ñu takk ay fas yor ay addiya ndand lañ déparé ñëw fekk sëñ Tuubaa daal mar naan caaween lañ tekki wae wae wae wae way way way way tay ku am ku am gën dara moom laa ah. Mamour wax na lu am solo moy moy moy cay sëriñ Tuubaa la kenn xam lu mu doon xolal ni mu ni mu ni mu taxawé mm. eh, ñi nga xamanteni ñoy ñoy ñoy ay ñoñom rek mam mm. Cerno bi mu ko wax manam ku nekk ba ci Cheikh Ibra ni ko kat ah li nga xamanteni kat mom la eh, sédélé mm. manam li daan ñëw si man na ko def ay pàcc defee ko ni nga ko waxee suñu maam Mor Diarra maam Thierno li mu koy jox ñi nga xamante ne dañ daan ñëw sëriñ bi di laaj mu doon lu am solo waaye yemul foofu mm. ndax ba mu demee ba xam ne sangam bu tedd ba mu ngi ca Gabon mm. da daan yebal sax ñoo xamante ni dañuy dem ba Gabon di ko di ko di ko di ko waaye dogguma la sëñ Alioune Badara xoolal waaw at mooy 1895 boobu mhm. mooy wax mhm. te sëñ bi di waaj pour dem mhm. kenn ci njabootam ca la gën a jamono muy Serigne Bassirou Falloum Cheikh Ibrahima waaw soxna Awa Jaxate Jóob a ko jur soxna Awa Jaxate Mamu mu Jóob a ko jur lii ma la wax sëñ Thierno Mbacke Gello ngal laa ci mujj waxtaanal guddi maa ngi koy ziar baax tey ñaan yàlla mu yàgg loolu sëñ Bassirou Fall moomee Serigne Bassirou Mbacke la ko Cheikh Ibrahima tudde waaye moo ko mag ci moom lañ ma sa gisa nag mat sa turandoo la ko sabab nag mooy comme sëñ Touba santaane woon na mm-hmm. ne bu fekkee ne gan wut na ko fii mm-hmm. nañ ko tuddé Basiiru ba ko cheikh Ibra déggé dem kërëm fekk soxna Awa jaxatu job am gan mu na Basiiru mu seigne touba wax wax tam ñëwagul jamono mu la ko ñu tuddé ko sëñ Basiiru Faal moom <laughs> eh, loolu kéemaan dëgg la loolu kéemaan ca at momé la xewé dëgg allahu akbar loolu kéemaan dëgg la nga nga xamante ni kon cheikh mm-hmm. Ibra mom uh-huh. maanaam ay ndawam dañ daan dem ba Gabon dañ daan dem Gabon ba mu xamee ni Serigne Touba mu ngi Gabon waaye dama bëggoon nga mm. tijji benn parenthèse bu ndaw rek mm. ci Serigne Touba mm. ndax yàlla dogal na ni ni ñu ko waxee sànq moom Baye faal mii Baye Fall maa yomb sax la ñu koy dàkkantalee di ko waxee suñu borom may na ko ca Gabon ndax yàgg na fa te am na xam na fa fu bëri di fàttali ko am na si ñu bëri bu ñu ñëwee def gëstu moom la ñuy àndal ba dem si barab dañ fay tudd wiir wiir maa yomb Cap Lopez maanaam barab yu bëri montagne sainte ak yooyu yëpp maanaam sëriñ bi mun nañu ni sax tànn lu mel ni maa yomba ndax dégg na ni def na fa juróom at ah, noo ñuy présenté maa yomba doog a dikk nag si Cheikh rek ah. nan la ko daan fekkee foofu ci ay ndawam waaw maa yomba de moom sëñ <laughs> sëñ Ali Badra mooy fi nga xam ne moom laa gën a sawar a wax ah. ci lu tënku rek ndax fi mu ne nii moom xam naa li nga bëgg a génn yëpp damay dàkkante ak waxtu yi moo tax sax may tënk nii rek waaye daal yow moom ay yeneen i jotaay xam naa li wax rek mooy ku ñuy wax sëñ Abdou Samane Mbacke moom sëñ Soyebu waaw jàmbar dëgg ngi noonu dafa mos a ñëw Gabon am taalibe bu ni ko euh, muy laaj ku gën a yittewoo xam naa barab bi sëñ Tuubaa yu mel ni Mayumba ak yooyu ñu wax ko sama tur te gisaguma ko mhm. moo ma téléphone ndax bëgg gi mu bëgg sëñ Tuubaa ni ma sama xarit nga ñëwal fii ba ma demee fekk ko ñuy waxtaan di ko ziar bu baax sëñ fa waxtaan wa di daanoo fa waxtaan wa di daanoo dani ma yow loo jàpp ni moo taxoon yóbbu sëñ Mayumba ma ne ko bu dee ci li ma jàpp moom damaa jàpp ni Mayumba kenn xamu ko woon ba di ko fa yóbbu moom moo fa bëggoon dem yóbbu fa ñam fa àndal. waaw ah. ma ne ko loolu laa jàpp rek waaye waaye ma ne ko li wettu woon Mayumba day barab bu Alioune Badara boo xam ne neexu la ndax maa Mayumba. Ah. ba ci jamono ji ba ci jamono ji. Mayumba boo déggee sëñ Tuwalim naan Maradiel Bare nii. gam ko ba mu ko méngalee. Mm-hmm. nga xam ne mooy rencontre. ci ni ko ñenn ñi waxee boo demee Afrique Sud da ngay gis ca Cape Town fu ñu naan rencontre océan Atlantique ak océan Indien. marajal bahrain yàlla boo demee baynuhuma barzakhun waaw boo demee boo demee ca Mayomba nag. Mm-hmm. dafa am lu ñuy wax fleuve Bagno. Mm-hmm. ak océan Atlantique ñoom ñaar ñoom ñoo dajee wër dëkk bi. nga xam ne sëñ Tuubaa ba tey jii fa ñu yóbboon sëñ bi waxtu yi may wax nii kenn ku fayee kuñ fa jàppoon yóbbu la fa léegi yow dong yaa fay nekk ak jinne yooyee gaayam yooyee. ba nii nii jamono ba nii nii jamono jëf sëñ Tuubaa di nag maanaam dafa doon barab bu enclavé bu boo xam ne mm. kenn mënu faa dem te gàllo te du gàllo dafa insisté ni mm. ba léegi nii barab bu enclavé ba léegi nii barab bu enclavé la maanaam gën ngaa gàtt ci li ma lay wax ci li ma wax ci doy gam doy waar mm. labbe fa yóbbu woon sëñ Tuubaa tey jii may wax ak yow fab nañ seeni i bagage ba daw dem seen yoon tëj barab ba te yóbbuwuñ seen i bagage mbooleem loo xam ne amoon nañ ko ci biir moo xam photo la wala lépp nga ca biir ñu ceene ko te ko wacca noonu barab bu yàlla bind néew fa bu ko defee kon li may bëgg wax ni ma bëgg a melale Mayomba Mayomba ah loolu lu ko sawab waaw Mayomba Mayomba barab bi sëñ Touba nekkoon nga xam ne mooy mission catholique bi nga xam fa la yóbbul sëñ Touba téye ko fa moom laa la bëgg a melalal tuuti fu doy waar la boo déggee sëñ Moussa Ka bi muy wax sax mu naan labbee nan ko Bamba yaa yaa di ndaanaa mm-hmm. dañ koo yóbbu labbe yooyu nga xam ne ñoom seen objectif moo doonoon euh, évangéliser ak ñi nga xam notee la leen taxaw na jóg ñoom ñaar nag ñoom ñëpp nag ñu dajee doom foofa ci barab boo xam ni nii la ko ndox mi encercler fleuve bi moo jël côté bi euh, océan Atlantique bi jël côté bi mu tëj dëkk bi mhm. amul kenn ku fa mën a ñëw ca jamono jëf sëñ Tuubaa ne tadu gaal la fa indi mhm. gaal googee nag fa mu costé soo dee yéeg ci benn montagne bu kawee doon aw xeer ci la cathédrale ba ne mhm. léegi nag bi nga xamee ni sëñ bi wàcce nañ ko fa di ko fa yéegal fekk na ñu préparé benn quartier soldat fii ci entrée bi ngir mu mën a ngir mu mën a fermer barab bi ngir séquestration la dañ ko bëgg a tëj ci ruq boo xam ne dootu fa mën a génn dootu ñu mën a kenn dootu mën a xam ci moom dara mm-hmm. léegi nag ñu daal di koy yégal ca yéegal ca kër labbe boobe kër labbe boobe nag at mi sëñ Touba sañ ca Touba li tax mbir mu doy waar ci am di muy 1888 mm-hmm. ci lañ sañ ci kër labbe boobu mm-hmm. damaa xamul nag ndax sëñ bi daa am ndegem fa lépp war a jóge daa bokk ci ordre sëñ bi yu mu sanc lu mu nekk même date 1880 bi mu sanc Touba ci lay sanc ak cathédrale maanaam boo demee plaque baa nga fay mhm. ba tey ji léegi nag barab boobu mhm. kenn mënu ci woon a ñëw te du la fa yóbbu amul mhm. woon yoonu oto amul fu nit di mën a doxe ci tànk amul suuf ndox dong la fa mën a indi nga xam sañ Touba jële nañ ko libre Libreville gi mu am ñetti weer joo ko ci gaal loo xam ne mën naa ëpp weer balaa ñoo mën a àgg ak moom maay ma ndax 819 kilomètres ci gaal ak looco goo xam ne amul moteur soo ko bëggee yóbbu nit yaakaar naa ni dina dana jafe maanaam diggante Libreville ak Mayomba daanaka daanaka junniy kilomètres 819 kilomètres la yoo xam ne soo jaaree ci yoon wi waaye boo jaaree ci ndox mi nag da jaari waat fi ñu naan Kablo Bissa da ngay jaari ji Port-Gentil wëri hmm. dem wër dëkk bu naan Cité Kama sëñ Tubaa jaaroon na fa door a dem nag duggee ji nag Mayomba hmm. bi mu duggee nag ñu séquestré ko ci biir ci biir barab ba mu nekkoon nga xam ne am na yoo xam ne ba tey jii mm-hmm. murid yi ñu koy wax sax te fekk xamuñ ci lu bari mm. ndax tubaab yi ko fa yóbbuwoon ñoom la leen njëkk a jaaxal ci sëñ Tuubaa bu neexee sëñ bi léeg-léeg mu se mu réer leen ñetti weer ci île bi yoo xam ne ku yàlla bind du xam ci moom ah. xanaa kon loolu ñoom mooy tubaab yi déclaré naan sëriñ bi maa ngi koy jégalu maanaam waaw waaw déclaration boobu li ko indi mooy doon na reer ñetti weer di dikkaat ñu di ko gis mm. nga xam dañu yore kaleron yoo xam ci béjjën lañ ko def bu ñu ko mbibee leg leg suko sobe mu ñew leg leg ci ñetti weer leg leg ci ñetti fan leg leg ci bir mais benn yoon nak bi nga xam ci lañ bind lettre woné ni sëñ fatou na maanaam boo déggee sëñ sëñ Moussa Ka bu bu la bu ñuy maaj rek bamba daal di kabar dañoo yëngal cloche bi rek. Hmm. ndax dama fa fekk benn gabonais bo xam amna 90 ans. kon yow dem nga ba ba wa waaw ba mom fa la ñuy dajee fa la yow mi sax di nga dem ci bir bu gàtt. alhamdullah wa yak yak sëñ sëñ Albert. manam dafa dañ fa yara cathédrale cloche bo xam ñu ko fa indi 1897 moom sëñ Tuubaa fekk nañ fa muy koos bu am doole boo xam ni buñ ko yëngalee day tànqal sëñ bi même buñ ko yëngalee nag mu tànqal ko dama faa dajanteeg gabone boo xam ne daf ne man sama bàyyi ci soldat si doon garde sëñ fii ci la bokk hmm? nett na ma histoire boo xam ni mosumaa gis ku fi ñëw ngir ma mën ko ko nettali guddi la ma koy nettali ci barabu maayam bu boobu mu ni histoire mu ni mu ni sëñ bi ci boppam bàyyam nee na ko soo xamee tubaab bi mu sëñ yoon tëgg close bi ba so ba yëngal ba sonal ko day def nii ay loxo moom xamul kàbbar waaye bu nee nii man dinaa xam ni kàbbar lay wax waaye sëñ bi bu kàbbaree xeer woowu nga xam mooy il bi day baj-baje def trem tremble wu comme li ñu naan tremblement de day yëngu ba batiment yi tubaab bi nar a daanu tubaab bi yëpp daw daju dugg ci biir bâtiment yi tëj seen bopp dañ jàpp la bi affaire bi dalee nag kenn gisatu lu bokk ci sëñ bi te ñoom am na diir bu yàgg ñi meetuñ koo seetaan ndax dañuy ragal yëngu boobu muy suuf si yëngu woon mu yënguwaat ko ñu bàyyi sëñ bi far mbir ma sar nag at nga xam ne jamono ji ñuy bind lettre fii naan sëñ bi faatu na ñoom seenu jaaxle ci sëñ bi xamatuñ fu sëñ bi nekk ci kaw suuf moo tax ñu di ko bind mm-hmm. amuñ ci dul xëy gisaat sëñ bi fañ ko doon teg ak ay bagaasam eh. ndax xam nga maa ngi yaa ngi doon wax dafa am ñuy jaawale li ñu naan wiir wiir waaw ak maayo waaw doj boobu nga xamante wiir wiir moom fa la sëñ Tuubaa nekkoon ak Samba Law wiir wiir moom wiir wiir moom mbir mu dee waar la moo xam ni hmm. dama naan dama naan kenn laa mos a gis ku fa dem muy sëñ Mor Faasa Diouf mom sëñ Njaga Juuf Tubaatu ba muy dem nak fal me nga xamne moy mooy président daayira ba ca lambar na momit mm. bobu da doon bëgg dugg Gabon jël gal gal gi wacce ko Mayomba mom muy wut num def ba ñëw Libreville far gisante fak sëñ Mor fek sëñ Mor lijjanti na am gal gu ko wara yobbu mm. wir wir wir wir nak du suuf amu fa dar amu fa aw xeer la xam la roche lañ koy wax mm-hmm. roche bobu nak mi ngi nekk ci digeunte Mayomba ak Pointe Noire Congo mm-hmm. su ndox mi nekkee marée basse xeer wi day génn su nekkee marée haute day bën day mëdd xeer wi benn tubaab navigateur moom moo jóge Pointe Noire ndax booba Mayomba Pointe Noire li ñuy li ñuy am lépp li ñuy am lépp Pointe Noire la leen di jóge ba ci Pointe Noire la dépendre woon ca booba jamono mm. booba jamono léegi nag ñoom ñuy tuwaab bi su fekkee ñëw naa gaalam directement jubal si Mayomba bu naree bu naree def tout droit day dal ci kaw xeer bi bato bi day dal ci kaw xeer bi te kenn ku ne xam na navigation ni ñu koy defee mm. commandant day taxaw ci kaw bato bi jàkkaarloo ak kab bi mm-hmm. léegi matelot bi nag taxaw ci baar bi léegi nag moom bu séenee xeer bi pour ñu bañ a dal ci xeer yi danaan danaan matelot bi wiir wiir su ko waxee wiir wiir ñaari wiir yooyu mu koy wax nag ci la baatu wiir wiir bi jógee waaye wiir wiir du barab xeer bi lay wiire ndax su ko continué mu toj koy contourné parce que bu ci jaaree xam ne sëñ Mor mii ma lay wax ba mu fa demee moom ba lijjanti ba dem fa te la ko fa yóbbu nag day mbir moo xam ne ñëpp ta wax moom bis bu ñëwee dina ko mën a waxal boppam xam waaye la ko fa yóbbu moom sëñ bi la ci sëñ bi la bawoo waaye moom sëñ Mor mm. gaal ga mu fa yóbbuwoon bañ demee gaal ga daan dal ci kaw xeer wi ndax ña ko fa yóbbu avertiroon nañ ko ni ko ku fa mos a dem daanaka faatu hmm. ba nga xam ni moom gaal gi daf kee nar a dal ba nga xam ne bi waa ji lijjantee ba ñu génn ci diggante boobu ba dellu siwaat maayomba hmm. njëg gan waxante woon war koo fay dañu ko ndegam sa sëriñ bi fexe na bañ deewul jox naa la lépp addiyee sa sëriñ boobu nga xam ne benn dërëm jëlu ko ca jëlu ko ca lool waaw nga xam ne moom fayul carburant fayul dara yóbbu ko fa ban demee ndeem deewuñu rek ci la ko waa ji bàyyee bàyyee loola nga xam ni kon hmm. maayomba moomu hmm. barab bu doy waar la sëñ sëñ bi fi may wax ak yow nga xamante ni wiir wiir li si tubaab bi jublu woon mooy maanaam yóbbu fa sëriñ bi si jamonoy marée basse maanaam nga xam ndox mi wàcc na bu nekkee defee suñ ko fa wàccee marée haute bu ñëwee ndox mi mën kaa nga xamante mook sàmbalawbe mooy fi ñuy wax mook sàmbalawbe sàmbalawbe moom daf fekk boobu am leen teg tubaab yi fii jolof ci biiru ay lempo c'est-à-dire ñoom ñaar dañ yóbboondoo biir no déedéet sàmbalawbe moom dafa jamono bi mu accès dañuy bañ bu dellusee Sénégal li pexe mi di ñaaw mu nettali ko fi ñu ne nag kon nañ ko boolee moom sànniwaal leen ngir mu kenn bañ a témoin mbir mi ndax ñaaw gum ñaaw léegi nag biñ ko boolee moom moomu nag ak sàmbalaw bi ak i bagage sama yooyu yëpp yóbbu ko wiir wiir gi nga commandant bi ci boppam ba mu leen fa sànnee mook seen bagaas yi ndax gaal gi daw ndax du mën a taxaw mu mu mu sànni bagaas yi wàcce kenn di kon ne gaal gi di daw mu wàcce ki ci des nga xam ne man diggante sëñ bi ak ak sàmbalaw bi sax xeer wi am na ndox mu dox seen diggante ndax ndax maase wut hmm. sàmba jàpp bagaas yi sëñ bi ñu dajale ko yépp teg moom moom mi nga xam ne mooy commandant bi mu dawal gaalam nag di dellu moom moom wóor na ko ni moom daa une heure wala deux heures de temps ndox mi ah, dina yéeg mëdd ko bokk bagaa sax affaire bi na te loolu ci lu yenu maanaa hmm. kon loolu na ah, moom nag mu tàmbali di bind rapport am laata moo del bi ah. loolu moo tax mu rey boppam hmm. laata moo agsi maayom ba fekk na mu bind rapport daal ni sëriñ bi déposé naa ko fa telle heure kon heure bi ma agsi maareb haute bi jóg na kon mëdd na ko moo ko bagaa sax faatu na jeex na hmm. mu dép mu agsi rek déposé ko ci ci poste bi gars yi xool ko xool xool lim déposé te ba mu ko yóbbu ñëpp ko gis hmm. gars yi xool affaire bi ne ko da nga ni faat mu ne ko waaw mu ne ko teng ko ci xeer mu ko waaw mu ne ko indi ñi témoin ni teng ko ci mu hmm. indi ñam àndaloon ni ñooñu ñëpp confirmé ni bàyyi nañ ko ci xeer mag waa janjaar mu ne ñu ni ko diw sergent diw mii hmm. nga xam moo doon xëy di rond barab ba nga ko bàyyi woon heure sangam fekkaat nañ ko fa moom te bagage am manqué kam àndaloon ñëw na ma nga ca bagage ma nga ca barab moom mu daal di dawee noonu ñu ko waxee rek ak tiitaangeem ba demee fekk sëñ bi toog rek daa daal di génn fital fitalam rek fital boppam yii nag bokk na ci tax ñu am ko yàlla gabon <laughs> bokk na ci sabab yi tax ñu jëlee ko fa man ndax kenn mënatu ko fa téye tubaab bi dañoo kenn dootu ko garde ñaata at la fa def juróomi at la juróomi ba tey jii nii comme ni mu ko waxee Mayomba barab la buñu tëj daanaka kenn du fa nekk lu waaw maanaam barab boobu xatal gañ ko fa xatal àggoon na sax bu sampee ñeenti bant ngir bëgg koo def jàkkam di ca julli ñu ne ko bonu xatal sa jullikaay bi xaju nga xam ne loolu moo tax tey jii ñun loolu moo tax tey jii ñun ci objectif u caravane sur le tas de Cheikh Ahmad Bamba mm-hmm. ko sëñ Muntaxa sampal ko juróomi soroor ca barab xam fañ faral simpi bantam ya mm-hmm. moo jiitu ci suñuy objectif lu lu am solo ndax loolu ah. moom sëñ Tuubaa def juróomi at mm-hmm. ak foofu nu mu doyewaar waaye waaw sëñ Maamu ndax fi mu bëggoon mu ñëwaale sax nga sof ko si mooy foofee mu nekkoon. Cheikh Ibra daan na ko fekk ak i ndaw. ak i ndaw loolu laa bëggoon ñu indi ko ndax lu am solo la daal bisimilah. waaw sa ndaw dem ba Gabon. waaw Moussa ko wax na ko. waaw xam nga xam nga xam nga dafa am eh, ndekete kon bantam yooyu. Eh, ci tënk rek. ndekete kon moo sabab jumaay njaarim ji. ndax ndax waaw ndax sëñ bi koro ba yéeli sëy di bàyyi koo foofa. di ñëw fekk fekk jumaa ji doora yegsi mm-hmm. ndax yéen daa mel ni fekke woon na fa ñuy sam waaw fekke woon ba fekke sax nag la waaw ba mm-hmm. yéen sax jot faa jàppanteeg ñoom nag waaw moom defa doon fa défendre sëriñ bi ci yu mel noonu waaye keroog bi bi mu laaj mbirum sëñ bi ñu ne ko mi ngi njaareem mm-hmm. mu ñëw tasanteeg sëñ bi jumaa ji yegg jumaa jumaa ji eh, sëñ bi wax mag ñi ne ànd leen ak moom ngeen woon ko fa bañ bañ dikkee yéeli sax daanu na fa ndax ah, tàggoon na fa ak sagom ndax ba ko sëñ bi ne ko sama bant yooyee ak jumaa ji nu mu defee jumaa ji xaw waaw xam nga sëñ Mamour li ci doy waar mooy la yéeli moom nga fay dégg mhm. ak Sénégal yi nga xam da nga leen di dégg maayom ci jamonoy sëñ bi mhm. Mhm. Euh, ñoom ñoo fa la commandant bi nga xam mooy moo moo moo yëlifoon Afrique centrale fa la ne woon comme ni gouverneur bi nekke woon fii ci Ndar gouverneur u Ndar bii nag bi mu jëlee sëñ Touba fii Sénégal ba mu ko yóbboo yóbbu ko Gabon waaye Brazzaville la ko xam naa ne bu bu temps dul xat. Mm-hmm. itinéraire u Brazzaville sëñ bi bi mu ko jëlee jaar ak moom euh, ni ñu ko waxee ci ci ci Guinée. jaar Grand Bassam ci Côte d'Ivoire romb Côte d'Ivoire jaar na dëkk bu ñu naan saw Tomé. Mm-hmm. gaal gaa fa jaar gaal gi doon deserné rek yori bagage ak yëpp di wàcce. Mm-hmm. romb romb Lagos ca kaw ni mu ni mu koy waxee moo Sao Tomé sore wuñu jaar si na bataa ci ci Guinée équatoriale doon la gaal gi doon def ba ni mu accès ci port bu fu ñu naan por gentil. jël daa continuer topp océan Atlantique ba dem dëkk bu ñuy wax Pointe Noire. Hmm. Pointe Noire googa boo fa àggee nag. Hmm. fa la océan Atlantique ba yam ci suufus Congo suufus Congo euh, Brazzaville amul amul géej. Hmm. dafa am dex gu fa jógee nag ñu naan ko fleuve Congo. fleuve Congo boobee nag ba fa sañ ba accès dañ ko wàcc ci gaal gu rëy gi mu ne woon def ko ci gaal gu ndaw mu foofa la dëkk bi ñu naan banaana fa la ne. banaana waaw léegi bi mu bi mu rombee banaana nag. bi mu rombee banaana dugg ci fleuve Congo bi ci la romb dëkk bu naan Matadi. doxaat ab en romb dëkk bu ñu Boma ba mu Boma nak Kinshasa ak Brazzaville ñom ñaar ñoo qui ni ki ni ci wetu wet gi qui ndox mi ki ne ci wet gi ndox mi. Mhm. fofé nak fa lañ Touba ci Brazzaville. Mhm. Touba ba nak ont ni nak mhm. ki nañ Gabon ndax boba Gabon Gabon son population Gabon il est estimé à 2 millions de personnes. mais le jamono euh, inférieur à 5000 personnes. 500 000 personnes. matuñu woon cinq cent mille personnes territoire Gabon la ñu fa ne yéen te Gabon fait deux fois le Sénégal ah. territoire u Sénégal ban na ko ñaar yoon bu ko defee kon bu ko defee kon foofu daa doon daa doon àll boo xam ne kon ñoom lan doon soxla lañ doon mm-hmm. soxla lañ ñoom ci nëbb sëñ bi mm-hmm. ba kenn du gis lu bokk ci sëñ bi mm-hmm. kon Gabon la ko commanda ba mën a amee te Gabon préparé woon nañ terrain ba nga xam fa la sëñ bi war a dem kon léegi loolu moo loon euh, yëlli sëy moom ak soldat soosu ñëpp Brazzaville ndara ko jox soldat soo sax fa la doon yónnee ay fonctionnaire ñu fa liggéey mu yóbbu leen fa nag ñu jël fa fonction di fa liggéeyee ndax booba loolu lépp ci nguur tubaab bi la bokk ci yilifeefu tubaab gi la bokk hmm. muy yëlisay ak ñeneen am na ñeneen ñeneen ñu ci nekk hmm. ñeen ñi nekkoon nañ fa ñu nekkoon nañ lambar na comme ni nga doon dégg Blaise Diagne ci poste Londima boobu nga xam ne douanier la fa woon ni ñu ko waxee hmm. ak li gën a yéeme nga xam ne suñu tubaab yóbbu nañ ko ba grand yóbbu nañ ko ba ba ba a xam ne moom gabon dugg ci gaal gis sëñ Tuubaa ci biir mbay waaw mu bëgg koo tooñ mu bëgg koo tooñ di ree nag moo ko wax ni ko nag xam nga duudu fura biram loo ak maam Abdou Lo moom doon amal problème ca ay doomi bàyyi lañ mhm. da ko wax ni ko sama mag sama mag moo dox li la génn ci nga xam dafa pare woon moom ngir ci gaal gi rek tàmbali di wax ak sëñ bi dañu wax ni foofu la gaal gi tàmbali def benn sirène boo xam ni moom a déggante ak moom ba ni mu wàccee grand basam waaye dañu ko gabon lañ la jëmee moom moom moo ko wax mm. nga waaye gabon gi nag mënut a am fekk yóbbuñ ko Brazzaville ndax responsabilité gouverneur Saint-Louis du jeex tant que jox ko gouverneur ba nek Afrique centrale. di di fatali ni te Brazzaville la. di fatali ni Grand Bassam bobu yàggu fa ndax ñaar fukki fan ak ben dafa jaar rek mhm. ndax ci liko waral li sabab jaar bi mooy. benn résistant. Euh, euh, euh, ivoirien bo xamanteni mom lañ doon. mom lañ doon wër daf hmm. te mom moom yaakaar naa dañ ko yobale moom da bañu notaire fa la dess parce que mom hmm. da doon bañu hotel da doon bañu hotel waaw serigne bi nek keur soxna Koura Fall. ndaysan ndeysaan Koura mu ngi soxna Koura mu ngi ci armel yoy man ci armel Grand Bassam ginaaw bi mu am ba kër gi mu ko amit yaakaar naa daf kaa mujj jébbal sëriñ bi ba tay def nañ ko kër sëriñ Touba nga xam ne nga xam ne barab yi nga xam ne mën nañoo jàpp ni mm-hmm. sëñ bi sëñ bi taxaw na fa am fa ay fan grand bassin boobu la mm-hmm. ci lu wér mm-hmm. ak fee ñu naan dawme muy muy Porto Novo ca Porto Novo ca Bénin nga xam fa lañ ko doon joxe laaj ko lañ yooyu nga xam tubaab bi mu gisee mu koy laal dañoo bëggoon dox diggante moom ni ko sànni ko sëñ bi sànni ko ba àggee foofu nag nit ñi di ko teeroog ay parfum nga xam tey jii loolu daa daal di yéeme loolu loolu loolu ci porte nouveau googu la amee woon mu ñaanal jigéen ñi nga xam tey jii boo demee ñooñu bokk nañ ci ñi gën a tedd ca ca réew moomee waaw waaw loolu loolu loolu loolu lu am la nga xam ne Sëñ Tuubaa moom fu mu jaar lu ne lu tax mu yéeme mooy fu mu jaar si euh, euh, maanaam euh, trajet yooyu yëpp dafa ko bind dafa bind seen ba si wiir wiir bi soo déggee lu tax mu bind wax wax wiir wiir ni ñu ko wayee mooy mooy li nga wax baatu wiir mm-hmm. wiir mooy bi kii bi tubaab bi doon wax xam nga xasida ak ayasa minallaahu inda jéewali waaw li sa is naa de maanaam Euh, li tax mu doy waa waaw inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan mhm. sama jaam ñi yéen doo yéen ah doo leen doo leen am mukk ci ak noteel ci seen kaw. sama dëgg-dëgg jaam. Mhm. waa loolu dama ne dama ne aaya alxuraan boobu ku ko mën a jël. Mhm. fab fab lettres yi ci nekk. nga déchiffrer ko mu tombe ak dëkk yi nga xam ci la sëñ Tuubaa war a jaar ba te su lettres yi jeexee rek mu ñibbisi. daf ni Euh, ca ca jéewal la ko wax ayazamin allahu inda jéewali mm-hmm. iblisa isnadayto bi yaabe mu wax ci lu am solo mm-hmm. nafaali xayri laahu xablu fi ndari mm-hmm. bi ahlil badri usudu ka dari moo kon teew ak lu badri bi nga xam ñoo ko war a accompagner war a ànd ak moom ndax la ko annoncé ñu am sëñ bi am fa weer wu teg woo xam ne maam askamara nee na li tax jant bi fenkoon malaaka yi ñoo dox diggante ndar ak suuf ba ku weer ku fóoti yére boo ko weeree du woo nga xamante ba mu waxee ndax dafa li xëy laaw fi Ndakaaru waaw ci lay a waaw géej gi waaw nga xam ne noonu la ko toppee bu araf yi jeexee rek ba ca laam ga ba ca laam ga mu ni cëpp Libreville nag ba ca laam ga nag mu wàcc Libreville ndax comme Gabon la ñuy waxtaane daal ni yesara lii mun naa hmm. la daal Libreville hmm. hmm. man xaadali maa xaabaan kulli xam nga daf ci am baat yoo xam ne tamit ci niñ koy bindee baati wolof xam nga dañ ko wolofal jasaaw sakkoor dañ ko wolofal bu dubu arab bi waaye jasaaw sakkoor bi ñu wolofal am na ci baat yoo xam ni hmm. yu jara seetaan la ndax doon naa wax keroog ni hmm. am na ci barab bi sëñ bi ah, dem yoo xam li tax duñ ko mën a xam ñun bu ñuy gëstu ngir man koo xam hmm. fi ñuy wax île de Buruki ah, bari xërëm lool njiw ma yaa ngay suruki Buruki ak perroquet ñoo bokk île de perroquet la tudd ay sekku lañ fa jàpp ba tey jii boo demee Gabon bëgg a xam doo gis île de Buruki île de perroquet ngay te xam nga perroquet ak biru ki si arab benn la commañ rek leen warale commañ yi rek leen warale nga xam ne tey ñun li ñu gën a intéressé mooy ki jóg bëgg a topp tànk bi tur yooyu ñu turi dëkk yi ñu ci tudd ak barab yi nga mën koo xam ràññee ko ba léegi si biir murid yi mën koo xam il de Bourikine ku yàlla bind moom i dëkk foofu ab àll xam naa kii moom sëñ Mamour kii spécial Gabon lañ koy defal waaye gannaaw si bi ah. Cheikh Ibrahima maanaam taxawaayam ci ah. sëñ Tuubaa bu mu nekkee si Gabon ndax loolu tamit lu yéeme la sëñ Mamour lu yéeme la di yónni ay ndaw ñoo ah. xamante ne sa njaboot moo ciy jiitu ndax xam ngeen sëñ Fallou Modou nga xamante ne moom dafa bokk bokkoon ci euh, taawam euh, voilà citoyen sëñ Ibrahima Basel ak Ablaye Ibrahima Basel ak Ablaye xam nga xam nga xam nga maam Cheikh Ibra Fall ñu yóbbee xéewal ni toir li ngay wax Gabon sori na lool li ngay wax ni mooy ab rolam mm-hmm. xam nga Cheikh bi bi muy faggu fii ci Lambinance këram gi mm-hmm. mm-hmm. saan a ah, nit kuy dem te xamoon dina ñibbisi nag wax dëgg yàlla boobu coono doo ko ci daj. si Cheikh sëñ Cheikh Bintou Fall ñoom mission bi ñu war a def ci ësal la amoon xanaa xamoon ni xanaa xamoon ni ba sëñ bi ne ba sëñ bi ne maam Cheikh Rafal ñu ñëw àddina xanaa xamoon Cheikh Rafal da ko conditionné mhm. dani ko loolu nga bëgg waxal sa borom ni ko na ma nangul fukki yëf ak ñaar mhm. sëñ Ibrahima Mbodj ma ko wax fukki yëf ak ñaar bu ma ko nangulee ma ànd ak yow mhm. nee na mu ne ko nangul na la ko fukki yëf yooyu ak ñaar nee na bàyyi julli bàyyi woor rek laa ci jot def coow li bari te yàq taxu maa jóg ma denc ko waaye nag ba ba pare nag téye sama sañ-sañ fi ne Baye Fall yi ñu sañ yëpp bu génnoon sëñ bi mm. ah xoolal exemple Baye Cheikh Ndaw sama rek pour nga xam li li nit ñi sañ mhm. dem ci marché mhm. ni jàkk jigéen xam ni kii mooy ko tub yàlla mhm. nga ni ko dem nga ni ko nii damay laal sa kanam mu noppee mën a mooy xeeñu xetu nit xàmmee ko banaan ko banaan ko yow a diw doomi diw ak diw ak diw ah, te mënoo ni ko jàkk ni si nga xam loolu tudd ci saw làmmiñ mu sotti da ngaa yaakaar ni sëñ bi yooyu sañ-sañ exemple yu mel noonu da nga koo gis ci àddina kenn ku ko mos a def kon yoonu yoon wi nga xam ne moom la Cheikh Ibrahima li ci ne ci sañ-sañ sëñ Ibrahima hmm. koo mën a gis tam wax ni jullit la bu tëddee ba fajar jot hmm. ñu noot ni salaatu xayru mi ne naw mi hmm. mu tëdd ci ab lalam jógut julli ji walaay asim du yendoo lu mu xam ah, waaye li tax Baay Faal yi mos ngaa gis ku convaincre nit ba mu doon Baay Faal kenn mënta convaincre nit ba def ko Baye Fall waaye kenn mënta décourage nit ba bàyyiloo ko Baye Fall xel aggut ci xel aggut ci jëlee ñu ci Baye Fall wala xel aggut ci convaincre nit ba def ko Baye Fall Baye Fall lu ñuy yëg la ñi ko xis yëg nag ba xis du ay tappaleeg yooyu de waaye tamit xoolal Baye Fall li ko lislaam jara ni mu réyee li ah. li ko li sàmm jaral maanaam ma dellu seek comme ni nga wax rek ci Cheikh Ibra hmm. rôle bi nga xam ne moom la doon joué <laughs> ñu ngi siyaar baax sëñ Birahim Fall moom baat boobu daf may daaneel <laughs> nee na nee na moom isn isn naa doon ah. Baye Fall at Ah, mënu ma ko ma delluwaat sànq ma delluwaat sànq loolu nag moom njëkkee ko loolu nag loolu nag moom njëkkee ko sëñ ma dema ko njëkk a wax eh. boo ko ma sëñ ma dema njëkk a yendu jeeg Cheikh Ibra kër Cheikh waaw ah. dellu si kër gu mag ni sëñ Tuubaa mm-hmm. jaay naa la sama jaamu yàlla noppi na ma julli mu ne ko nekkal ci waar bi nga ne ndax gis gam gis Cheikh Ibra mm-hmm. ñu yendu suba ba ngoon mm-hmm. te gisu ko ci loolu ak fan àgg ci yàlla ba sëñ bi di ko fa yebal di ko xool loolu leneen la nga xam sëñ bi la ne ma dema yow ni mu def da mi ngi mel ni yor sa kooku ndox dem suti ko ci géej ga naan nan boole xam na ni doyuma jaamu yàlla kenn dara hmm. waaye nii mu def nag aka koo jar ndax fu mu fekkatim ndox rek hmm. boo xasee yow sa ndox ci géej gi boo demee Kayaar bu la neexee tàng boo demee ndax def nga sa sos koog ci géej <laughs> waaye waaye maam Cheikh Rahane Fall baab mu hmm. damaa bëgg a ñëw ci ñetti deel yooyu nga xam moom laa dugaloon ci njalbeen waaw deel xam nga ndar tudd nañ ko sax ndar tudd nañ ko sax waaye gis nga ndand ndar ndar Dakar trajectoire la waaye kees a ci biir ndax 1892 la wax baaba kër Lo ni ko jànqeen ba jànqeen ba Ndakaar foofa dem ma fekk na fa mhm. ndaw la mu yónni ba mu ñëwee mu ne ko da ngay baat ba mu la njëkk a wax nag na nga ko jàpp bu ko fàtte mhm. mu ne ko jànqeen la njëkk a tudd boobu mooy kees mhm. ba Ndakaar jànqeen foofa dem ma fekk la fa kon xam nga kooku am na lu muy topp am na trajectoire bu mu war a topp jànqeen googu nag ñoom bañ fa ñëwee 1892 nekk fa ba 1904 la leen fa maam mu dina fekk waaye nag fekk googu mu leen fekk teewul woon nag seexi ba jëllu fa jànqeen ñëw ndakaaru wutal fi sëñ ab barab teg fi ay nit nam tege woon i nit ca lu ma mën a wax la waaw kuñ naan Madu mbenk waaw maanaam man mooy sama maam waaw maanaam doomam ju jigéen ñu naan Ummi Mbeng moo jur sama baay mm-hmm. ca booba jamono Cheikh Ibrahima bokk na ci mag ñi bàyyi woon fii Lambinaas bu toogee ndar bu ko soxlaa boobu ñun amuñu amuñu téléphone amuñu nu ñuy mën a communiquer barke Cheikh Ibra Fall ndar lay toog ni ko Modou mu ni ko Fall mu ni ko bu subaa na nga ànd ak hmm. kàngeen xaar ma ca gaar ba ko def ak sama am Cheikh Atoumane nag waaw ak Cheikh Atoumane booba day mel ne genre téléphone benn la wenn wenn askan ah, nee Modou mu ni Fall mu ni xaar ma ca xaar ma ca gaar ba bu subaa gi ak kàngam hmm. man sama taw maam amoon na téeméeri at ak ak euh, fukk ak juróom mi ngi doon dëkk kër Njaay kër Njaay loo gi tudd Mbend Mbeng soxna Mbend la ko soxna ko Cheikh bi tudd boo xam ko mm-hmm. kookee fekke na bokk na ca ña nga xam daan nan ànd ak daan dem ca gaar ba di yenu ci di yenu ci bagage yi kon loolu ay firnde yu wër la nga xam ne kon Cheikh Ibrahima nii mu sakkali sëñ Touba mm-hmm. Euh, administration ñuko nekkal ndax hmm. di liggéey ci ci programme boobu ni la ko wuté won fi ci dakar am ay mag ñuko we fi nekkaloon buy wacc si sahar ñu ñew diko ko ci sahar bi di ak mom hmm. muy to kër gogo yor fa tooli dër nak hmm. fi ñu am laminance yamul won ci ak kër so su yaatu la won so ay dafa né mo barak fa barak yo xam bu señ bi ñëw ci la wara wacc wàcc loolu mooy préparation loolu moy préparation dakar waye ndand nak fa la wara tambalé nak di yégué gor yalla ndand rencontre waaw rencontre ba di ñëw Thiès juróom-ñaar fukki juróom-ñaar fukki góor yàlla la indi tom sëñ Mamour del jël sëñ tom boobu la boo xam ne faaw dinañ ko waxtaane ndand lu garaaw dañ ko waxtaane ndax nag pour ne nii moom Cheikh maanaam mooy li sëñ Mamour wax rek maanaam ëmb bi nga indi moom réy na réy moo xamante ne taxar ñu ko moom ni bu rek nga ñu bu ponk nañ ni émission la te suñu borom bu ko dog dogalé yalla ñu mm. sunu borom may gudd fan inshallah ak tal dinañ ko dinañ ko and bu ci nek dal dikoy takali tàqali ndax na xam nga mbiri télévision waxtu la ah, té mom li mom dañ ko warone yendo rek si maamu xamna ni kaddu yi euh, wala mo bàyyi ko mu taggo bo nopp wala lo ci bëgg a rek bu ko defee amna lima ci li ma rek ah. waaw mom moy dafa wax lo am solo xam nga mm. ndand mom dañuy bàyyi ba benen ne gabon nag tey moom macha allah mel na ni moom résumé nga ñu ko ci ci ci ci daanaka euh, waxtu yu néew rek waaye su ko defee liñ ci jublu woon a xam lépp xam nañ ko mm. lépp rek day wane ne Cheikh Ibra kenn du moom mm. ndax nag bi sëñ Cheikh Ibra nag mm. gannaaw si bi moo dox nag diggante moom tubaab yi ba sëriñ bi ñibbi loolu lépp ñàkkut danañ ci dëkk eh, ci ci junniy nguur de yam joxe woon te Baye Ibrahima Thiam wax ne ña ngi ko saañ ka ca France ngir ñu defaat waa kay delloosi ma ngo jeex tàkk te loolu lépp nag sababu tombeek dogalu sama borom sëñ bi war a wàcc fii ci port bi 1902 1902 ci siyaar baax ñoom sëñ Maguette Diop ak sëñ Fallou bi si màggalu koy taxaw fii ci port euh, moom daa xam naa ko am gën tëraani tëraani rek sëñ Maodo kon kon kon euh, sëñ Cheikh yow looy tàggoo incha allah ci tàggoo gu dul dog ndax niñ ko waxee ñaan nañ suñu boroom mm-hmm. ndax xam naa ni yow mii faaw ñu def ak yow ay série yu bare ngir génnee génne lu bare bare incha allah ko wax ji moom rafetlu nañ ko te gis nañ ni xam-xam baa ngi fi macha allah ngeen kàddu ngay tàggoo si jotaay bu njëkk bii rek jotaay bu njëkk bi waaw dama dama te di bëgg lool nag te di jéggalu ndax xam nañ ni ndànd waaw te ndànd am ci lu am importance ma ah, tudd ko muy juróom-ñaar fi góor ñooñu nga xam seexe ba ànd naag ñoom 1904 hmm. bi nga xamee ni jéeri rey na commandant santan di dawee Thiès jëm ngul ma ci la seexe ba dugg moom Thiès 1904 hmm. bi mu dugg see kenn daw ci digg nga xam ne bu ñu nee ko sëwru maam Seydou mu Njaay lii lépp yow a lii rek la jëri bëggoon te <laughs> jëri dem na am notel dong la bëggoon waaye Seex Ibra moom laaju ko waaye dañ ne ko yow a waaye agsi gam agsi 1904 nag mm-hmm. ñu jox ko suuf ci daaru bayre soo xam ni tey jii mm-hmm. tey suuf sa boo demee sañ am di xadee nga fa am bu baax maa nga fa waaw sëñ seex ndigal la nga fa mm-hmm. di fa liggéey liggéey bu yaatu daaru Bayre googu sëñ Modou Mbodj nekkoon na fa. doon doon jëw daaru Baare. juróom-ñaar fukki góor nekkoon fa nga xam ne denc nañ fa fanweeri góor yàlla. Hmm. ci biir daaru Bayre googu. mu doon bu am solo bu jar di bari li hmm. ndax ya fa aju ci daaru Bayre yàlla dogal na ni dem nañ fa ba am fa. reportage bu am solo di ziar bu baax sëñ Amdi Xadi waaye Daaru Bayre beneen reportage beneen émission lay doon insha allah boo fekkoon looy looy tàggoo li may tàggoo daal la fekk si kàttan yàlla insha allah li may tàggoo daal mooy ñi ngi sant bu baax mhm. ñu ngi sant borom kër gi di sant waaw di sant techniciens yëpp ko mat Ah, di di sant sax ñu ngi njëkk a sant sax ci tuur yi rek bi mu tuddee Lamp Fall nga xam ne moom Lamp Fall moom moo moo moo yelloo mhm. leeral mbirum Cheikh Ibra mhm. lii yëpp nag dund Cheikh Ibra ko waral bu ko defee ñu gëm Cheikh Ibra rek bu wér ay jotaay yu bëri jagleel ko maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ Mamour mi talaata bu jot si euh, euh, euh, bëccëg bi dix heures nga dégg ko si rajo bi muy def émission ah, di si waxtaan Cheikh Ibra képp wax nga dëgg de maanaam maanaam ñu ngi koy sant di sant technicien sant ñëpp ñi ngi santit wax dëgg yàlla waa Thiès njaboot gañ fa bàyyi yëpp ca Thiès hmm. ah, ñi ngi sant tamit murid yi ne Gabon nga xam ne samedi bu jot ña ngay daje ca daayira ba di jàng xas na ci sañ mm. sëñ Modou Mbaye Baye Fall mm, ak ñoom sañ Papa Kalaam ak ñoom mm. Lamp caam ñoom sañ sëñ a Gise ñoom ñëpp nga xam ni tey jii ñooñu samedi bu jot ña ngi fay daje euh, képp ku jóge fii dem boo demee ñoom ñëpp ñu takku rek boo bu boo santee faal rek. moo yow yaay seen loolaay seen première mission bu ñu la waroon ñu takk seen i laxasaay ànd ak yow. dara la ànd ak yow di di liggéeyal sëñ ba foofu. kon siyaar bu baax a baax sëñ daal sëñ Fallou Diop. sëñ Fallou Diop waaw ñu ngi koy bu baax a baax. di di nuyu daal. wax dëgg yàlla mbooleem murid ya fa ne jëwriñ ne ndax liggéey sëñ Tuubaa ba fa nekkit ah. yaatu na te loolu lépp te loolu lépp di nga si ñëw si yeneen jotaay incha allah di santaat bu baax a baax incha allah euh, jërëjëf si kàddu yeeg taxawaay beeg ñëw bi sëñ Mamour am na solo lool mm-hmm. euh, sëñ Mamour laataa ma lay jox kàddu gi sax nga baal ma mm-hmm. ma fàttale nii xam nga euh, altine bu nekk fii si télé bi ñu ngi fii teewlu émission bu ñuy wax laaj ak tontu. ndax mën a xam seen i diine sëñ Xaadim Njaay Kayaar ak euh, sëñ Jiil Abdu Xaadir Samb di ko taxawee. Mm. waaye xam ngeen léegi am na soppite. Mm. ndax dañuy bëgg léegi laaj yi ñu koy jëlee ci rajo bi par altine. Mm. altine ba sa tegu ñu ñëw si télé bi mën a tontu laaj yi. loolu yëpp nag ngir gën a mën a yaatal. ndax gis nañ ni mbokk yi émission bu ñuy bàyyi xel la saa su ne li ñuy laaj. maanaam euh, dëppoo nag ni ñu ko bëggee mm-hmm. waaye léegi ñu koy laaj si rajo ba mm-hmm. beneen altine bu ñëwee incha allah ñu mën ko tontu mm-hmm. euh, ci euh, télé bi xam naa dinañ ko gën a leeral say bandaanoo si yoo xamante ni dinañ xam ni mu tëddee sëñ maam wax ndaw mu mel ni ñu ngi si catli tubarkal la di jaajëfaraat bu baax a baax mboolem mbokk yi ñu doon topp rek di ziar baax ak ñaana soxna Mariama Mbendi taalibab sëñ jilim sëñ fàllu ñu ngi topp sax jotaay bi di ziar baax sunu wajju soxna Soda Xuma sunu yaay soxna Supena Jong ñoom itam dañuy bàyyi xel jotaay bi saa su ne ndeysaan ñu ngi koy topp ak soxna Rabi eh, ñu ngi koy ziar bu baax a baax ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ziar mbokk yi nekk Njaareem sëñ am di Moustapha Ndaw mhm. ñu fi wutu Baye Cheikh Ndaw tey ñaan yàlla mu yàgg fi lool te wér sëñ Fallou Ndaw mhm. ziar baax sëñ Modou ak sëñ Assane mhm. sunu Baye Assane Ndaw nekk fii ci eh, Pikine ñu koy ziar bu baax a baax di ziar mboolem sunu bàjjen yëpp ca Touba bàyyiwuñ kenn nag ñu ngi jaajëfalal bu baax a baax ñaanalaat bu baax itam ki fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall muy sëñ Cheikh jëmm ca nañ ko tàmbaloon mu yàgg fi loolu buntu kër Cheikh ak ñaar yëpp ba daaru xafoor bàyyiwuñ kenn ñu ngi leen di ziar baax sëriñ Fallou Fall moom sëñ Abdou Sakkour sëñ Mourtala sëñ Mortala sëñ Bada sëñ Moussa ñoom ñëpp di leen ziar bu baax a baax mhm. sëriñ Cheikh Fall Mbor moom sëñ Aline Fall Mbor ak sëñ Fallou ñëpp ñu ngi leen di ziar moom sëñ Mour Fall benn di ko ziar baax di beral nuyu ak ziar ak ñaan Serigne Abo moom Serigne Fallu eh, so moom soxna moom soxna maam say Fall di ko ziar bu baax a baax eh, di ziar bu baax a baax Cheikh Abdou Karim Mbacké eh, sunu Serigne ndeysaan koo xam ne ko bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaan yàlla mu yàgg fi lool te wér di ñaan baax Serigne Xabban ak mboolem njaboot gi yëpp di ñaan suñ borom defal ñu di gàllu tof si yàlla ndeysaan di di di bu baax it sëñ Mamour sëñ Modou mu sëñ Amdi Yaasin di si ziar sëñ Fallou Fall mu sëñ Amdi Yaasin di mhm. xalifaam ak mhm. mboolem njaboot sëñ Amdi Yaasin gi ak mhm. seen xam naa ni ñu ngi koy waaj baax a ah, baax màggal sëñ Amdi Yaasin gi nga xamante ni euh, incha la di samedi bii ñu bu baax a baax waaye Mouhamed Gissé sa Kaolack moom di waaj le neuf ñu koy ziar bu baax a baax moom it ah, ndeysaan jàmbaar la lool wax dëgg ah, yàlla di Baye Fall bu bu ñu ràññeek Baye nuyoo ak ziar ca Thiès di ñaan sunu borom yàggal ko fi loolu tamaan ak wër Basman Gueye xasida saa su ne sunu xel a ngi si moom suñu maam waaye Baye Mbaye Mbaye ngi duñ ko fàtte ca Touba duñ koy ziar bu baax a baax moom sëñ Muntaxa <laughs> euh, di ziar bu baax a baax ku si mel ni sëñ Mbayka di bokk si Lam Fall di taalibe sëñ Cheikh Fall Baye góor moom it nekk fële ca diwaanu Fatick nekkal fa sëriñ bi sëñ Demba Sarr mu mm. sëñ euh, euh, sëñ Demba Sarr mi nga xam mo moo mu sëñ Amdi sëñ am sëñ sëñ Amdi mu Cheikh Sëriñ Wassane Fall di ko ziar bu baax a baax waa Kawsara di ziar bu baax a baax sëñ Fallou Gaye moom it xam ngeen ni keroog ya. moom nga dajal lii eh, sax daanaka xalaatu émission bi ah. suñu borom si moom la ko moom la ko jëlee di ko ziar bu baax moom moom moom moom murid la di ko ziar bu baax a baax kon waaye bàyyi xel ziar bu baax a baax hmm. mbokk yi nga xamante ne ñoom la ñu àndaloon émission bi du ñu taxaw bu baax a baax ci wàllu caméra bi waaye ya. laataa ñoom di ziar bu baax a baax nga xamante ne Jazboul Mouride lañ bokk sëñ Mbay ak euh, euh, soxna Maam Cheikh mii ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ziar nag euh, ñi nekkoon si caméra bi mhm. Baye Momar Diagne mhm. ak sëriñ Madiang si mhm. waaye di ziar bu baax a baax sëriñ Lamine Ndiaye mi nga xam moo nekkoon si wàllu son bi ak vidéo bi mm. waaye réalisation bi Serigne El Hadj Cheikh Gueye tey moom daa bokk Jazboul Mouride ah, bàyyi léppam dugg Jazboul <laughs> ñu ngi koy ziar bu baax baax si taxawaay bi ak illustration lu am solo ndax di def émission bi di ko illustré mm. ndax li nga wax si Gabon yi mu ngi lay gënal carte beeg maanaam di euh, fa bi nekkee woon ñu ngi ko illustré yooyu yëpp kenn ñu ko doon déglu di ñaan suñu borom kattanal nu ba lii ñu gën ko tàqar ñi mm. gën ko leeral en tout cas sëñ Cheikh waaw soñu nañ ma nag waaw mu ngoog ñoom Baye Fall Kama mu ngoog mu ngi leen di ziar bu baax ak sa mu ngoog kon ziar mbokk yëpp di sàkku nag hmm. hmm. eh, si mboolem mbokki murid yi sëñ Mamour ñu gën ñoo dolli ñaan suñu borom kàttanal nu ya ba li ñu bëgg si liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall ñu yaatal ko bu baax a baax waa xiru daawaanaa ne alhamdulilahi rabbil alamin amin amin